Thank you. na waay ngi nii mu waaji man na waay moom yaay Kaliphone Sall ngaari dégg naa suma xarit bi Kaliphone da doon buddi bañ yàlla na ko yàlla saafara te may ko jàmm Sall ngaari lam tora bul moom dama ko bëgg am ci moom cofeel waxal leen ma ko na ko misal mi ni ma nuyu naa ko nuyu naa ko nu ñuy nuyoo buur yàlla na ko yàlla defal jàmm kali aada yi dégg naa bañ jàppante ci suba ga dafa buddi ji bañ tombee waral ay gaaf waaye defuma dara te xaw ma ci dara nattu la rek yàlla indi bañ bu métti te kali suma xarit la suma doomu ndey la dafa fekk rek ne euh, seytaane fu mu xajul rek lay dugg ah xuloo bu ne am na fi ak juboo te kali suma nit la nag wax dëgg yàlla euh, may na ma un million yóbbu na ma màkka teral na ma takkal na ma jabar lu baax lu ne defal na ma ko sàll yàlla na ko waxal leen ma kële na ko dama ko bëgg. <coughs> ma maa tëjoon commentaire yi pour di leen kokkali xam nga damaa sew jikko bu sew laa yor ubbiwaat naa ko <laughs> ubbiwaat naa commentaire yi. <laughs> ni métti nag nga toog di commentaire ni tam pour commentaire munoo commentaire day métti <laughs> mais dama doon ruube rek dama doon ruube <laughs> jubluwuma ci dara rek ma ci dara c'est juste xam nga ruube affaire de balak yooyu yéen a ma gën a xam dëgg dëgg dëgg waa London nee nañu Medina nee nañu Ndakaaru nee nañu Gana nee nañu waaw dang ci tooñ ci dang ci tooñ dëgg dëgg dëgg waaw di ci fayu fayu di ci bayu bayu di ci bayu bayu dëgg dëgg git git rew Fadal dinaa la woo gis naa sa message dama jàppoon waaw waa ana waa Team Rox seen papa ñëw na de dañ ciy tooñ am na koo xam ne lali hôpital la tëdd di ma seetaan tey dëgg dëgg dëgg dëgg loolu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Jabel Fatou Seck baayu Faatumata Zahra jabet man de bëgg naa la siise waa kan moo ma ci yéen kan moo ma bañ déglul <laughs> déglul Pape Diouf mu ne maa jaawalewu leen ma love lépp géej gi ca ca géej gi ni nga mel noonu nga mel na jaawale woo ma kay la ñu dukkat balaa kaa bi di ñëw Sénégal dina yëngu de jaawale moom géej gi ca ca géej gi Cheikh Tidiane Cissé déglul yoo ko Pape Diouf bi déglul yàgg dëgg ñëwee nekk wuy leen ma cas bi nag dafa bari ay intervention ay ñaan ay ñaan njekk ay ñaan teraanga fu mu nekk foog ngeen jaay ma seetaane xeeb dolli su dul loolu naan di dama leen di trahir de damay ñëw nii rek ne waaw xam nga ginnaaw ay jàmm yooyu du neex fu mu nekk nii graissé neen ma pour ma noppi mais faaw ngeen jaay ma <laughs> sinon du mun a kaa parce que appel yaa ngi dugg hmm, mbokk gi fii foog ngeen jaay ma seetaane xeeb dolli waaw ah, su ngeen ma jayu nii ah, ah, hmm, hmm. <laughs> jaar nañoo ma noppi de mais kan la <laughs> ak ku ci am intérêt ci kanam lay leer duñ la jaawale man damaa mën a xeex euh, ndeysaan suma xarit bi kalifon xam nga nag ginnaaw ay jàmm te suma nit la bi ma ko dóoree ba nga xam ne nii xëm na ma ñëw bàyyi coow li bi ma amee affaire bi bëgguma tudd tur bi affaire bi kii bi <laughs> dafa ne ko kaay suma live kali xam nga dootul ñëw <laughs> fii dafa ñëwoon mu sorox ma ne ko kaay suma live nga jox ma numéro ma yónnee affaire bi ndeysaan mu mer démb sax sulli na suma yaay ja ca armeel ba ñëw mais kali du ma mun a saaga sa parce que dafa génn àddina te jurut la yow kenn duma mun a saaga sa papa parce que sa yaay defuma dara waxuma dara yàlla na ko yàlla yërëm fa mu tëdd mais la fait que ma ne yor naa ko ba pare yónnee ko ñenn ñi traumatisme psychologique boobu mu nekkee démb ak tey moom laa ko bàyyee xaw ma ne comprendre comme nit na la kaay ma may la nga ñëw mu ne la bàyyi ko da ngay ñor jox ma wala nga bàyyi kaa boobu laa ko dugal ne rox am na ko topp kaane am na ko brigade de police ne am na ko léegi nag mu mu traumatisé wu psychologiquement di xataraayu ubbil sa yaay ci bàmmeel bi may reetaan di siiku ma ne ko kali saa ngay ñaaw na dañ la ciy gën a bañ rek en boo demee bay guerre da stratégie ba pare am route de am tàmbali am bu safee ba pare am fooy daanelee guerre boo pare ne tëj ko na ko baal naa ko dootuma ko tontu xam nga kali dootuma ko tontu <laughs> nee naa waat naa ko ci yàlla donc dama leen di jàngare pour beneen yoon bu ngeen di xuloo da ngeen koy def ak stratégie def ko ak ndànk fi ma dooree fi ma dooree mooy lam ma doon wax ci waaleeg dooro laa nettali xajootul ci réew parce que nettali bu doon dëgg fu ñu ko nettali yow mi mu doon danga koy xam dooro xam na ne dëgg naa wax yéen a ngi dégg ma jóge ko foofu ñaari jabaram yi ko doon tuumaal infidélité mu koy waat di bañ mu ñëw ci kanami àdduna wane ne moom katt na muy ñaari defet mu ne poñewuñ ko ma nettali ko benn mu bañ muy ñetti defet ñeenteel ba traumatisme psychologique ma ñëw nag <laughs> mujjee ci kii bi dem ba tey mu ngi xataraay dem na hôpital bu dijj bañ kon nii ngeen di xeexee su ko defee nag boo boo jekkoo te dangay baale boo exagéré rek yàlla dalay wane ne ah am naa keneen ku la mën de ndaxte <laughs> déggoon naa fi boos de nigiri <laughs> mu ne ma yaay suma papa waaye gisu leen mbombi mbombi suma sœur bi mbombi siisi noonu loolu billaay barki se duma ci doyal mbombi siise bi loolu laa mënta muñ man mbombe siise bi mbombe mais booy bi monté suma vidéo yi bon na de ak ni mu ko de da ko bombate ba mu set xaale ma may leen loolu cinq rakk la am cinq rakk Roqaya Siise Ebo Siise Fafa Siise Ablay Siise Mbombe Siise Ngombe Cissé ñii ñoo bokk ak Cheikh Ahmed Aïdara. bisimilah. non non ay naa waaye ki may monteel suma vidéo tamit ay na xaaral ma sëqat ngeen wax ma toxo noonu lii du ci doyal c'est que topp kaa ba mu jeex bu sëñ bee ci dàq dangay ngay reetaan divertise wu ba pare mu jox la ay bomb te du métti <laughs> kaa guma de <laughs> ndànk rek <laughs> bu ngeen gisee mboom bi ne leen ko mu ñëw dimbaleen ci ci frèram bi dina taal dëkk bi de <coughs> kon daal suma ma diggante Kaliphone moom seppe naa ko génnee ko ci rang bi Kali bokkatul Kaliphone gis naa saaga ndey gis naa saaga bàyyi baal na làq yal nañu yàlla boole baal danga maa tooñoon ma duma la àdduna xam ne duma naa la say mbokk xam ko yow nga xam ko say jabar xam ko su ma continuer rek rey la moo ciy topp parce que internet bi gis nga fii nit xaruwul naan malaajoo dee duñ bàyyi fu mu nekk nii loo ma waxate ak lu mu mën a doon baal naa la yàlla seede na ko aada wi fi dégg naa daf doon live <laughs> wala leen ko mu ñëw te déglu li may wax mais dañuy ambiance tuuti nag ngeen jël place mbaa otee su ngeen tey lu weex laa sol su ngeen sol lu ruus di ma xamb ci ron di ma jay kaa bi du wàcc waaw yaay dalaa ñaanal yaay xadi dalaa ñaanal baay alaaji malik dalaa ñaanal mu ne dafa bokkul ak sëriñ du benn waxal leen kii suma yaay ak suma baay kajajak kajajak mu ne turi yàlla ak sëriñ du benn du benn kuy suma yaay paap alaaji Malick suma lan a ah, ndax bëgg nga ma a jongo ma nga dagi la dagi dagi dagi dagi padada tan kaa paap wéy na ko padada tan tan tan dégg dégg dégg dégg dégg cek dégg dégg dégg Mali Fanta ma ca waala bi waxaat ko nante ñu dégg indi dollil beneen ndeysaan ma ne dollil yuuxul jéeri ma ca waalo bi <laughs> neel yee baba man ndeysaan tak dee deng deng tek dee deng deng tek bu leen musa jaawale ne Cheikh Ahmed du moromu gaay yi <coughs> Eh, ñu commencé cas bi benn benn su ko defee délégué Amar balaa may dem kaso woowoon nga ma message saaga suma ndey saaga suma baay tontuwuma la benn yoon xaar leen kaay yi war a ñëw tey dafa ma intéressé bëgguma sax commentaire déstabilisé ma maa tëj commentaire yi léegi lenn rek laa leen sant lenn képp mooy tapoter partager ngeen dégg benn par benn tapote partage ñu jóge foofu nga ñëwaat bu yàggut saaga suma ndey saaga suma baay yemuloo ci loolu nga ñëwaat ci live saaga suma ndey saaga suma baay ma yëkkati téléphone woo la plus de une de temps xamal la ne bëgg Cheikh Amar bi ngay woote ak bëgg Doro Gueye bi ngay woote ak bëgg Wally Seck bi du dëgg ndax nit ñu baax mënoo leen a bëgg ci mbaax ba pare di tooñ jàmbur balaa ngay dem ci biti di tudd lëfal yaayi jàmbur yi tudd sa lëfal yaay li moo ko gën a jekk ndax ci nga génne kon loolu du mbëggeel waaye reewaange la mag mu bugg a uñu suturaam réew nag ba dugg ci Cheikh Ahmed Cissé jàll ci sumay waajur lu la ca fekk yaa ko dal lu la ca dal ak lu la ca fekk yaa ko def damay ñëw ci yow sa yàq biir kër Cheikh Amar yow sa yàq biir kër dooro gi si farambaare ni nag lay tëje wan la ne dama la waxoon ne délégué juboo noppiwoo ku jubut noppiwul nag màndu ci nit ñee ko war ngir yàlla saxal suturam maa ngi ñaanal Cheikh Amar fa tëdd yàlla na ko yàlla yëkkati ci barke sëriñ Saliou bi muy liggéey def na mbaax wax na mbaax ci réew mi awma soxla ci moom mais dama bëgg ay mbokkam déglu li may wax Cheikh Amar am na frère bu tudd siidi Amar délégué Amar yow ak Sidi Amar yéen a dëkkoon cité Damel ci apartement bi xam nga lan moo tax Sidi Amar rek Cheikh Amar gedd appartement bi bàyyi la fa katt xale yi nga nekkee premier jour mu woo la la moytandikuloo njaaloo nga bañ deuxième jour bi mu ne la xale yi mineur leen munoo koo déggal moom muy gor te du yàq nit mu takk ay bagaasam bàyyi la appartement bi ngeen dëkkoon cité Damel ngeen dëkkoon Sidi Amar ak Cheikh Amar ñoo bokkoon ndey ak baay duma ñëw nag ci sa juddoog li tax nga sant Amar bokkook Cheikh Amar dara bi loolu passé ku ñuy wax buuba sekk ñu koy wax buuba mooy sëfooru Cheikh Amar simple sëfoor yow boo buggee Cheikh Amar loo koy dugalee ci vie privée Cheikh Amar pour la yow ak Bouba Seck boobu amut lu ngeen yàqul kër Cheikh Amar ndax yàq weesuwul yéen yéen a siwal ne mari Amar lesbienne la bu leen fàtte ne yéen a ko waxoon do délégué yaa ko jiite woon bul fàtte loolu mukk bul fàtte ne da nga jaxase na Amar sëru Cheikh Amar bi nga xam ne lu baax lu ne def na ko lu baax lu ne wax na ko ku Cheikh Amar di jox moo lay dimbale am jom am ngor dóor nga ko ci kaw jabari Cheikh Amar yi dóor ko ci kaw Cheikh Amar ba pare yàq derem di ko enregistré Sukayna Amar sëru Cheikh Amar la <coughs> buuba boobu nga dugal kër Cheikh Amar liggéey yu bon yu fay dem moo fa nekk xam nga Marie ak Cheikh divorcé nañ depuis 2016 tas sëy bi tas bi yàgg na Marie ngi dëkk mbuur gi sëyatut ak Cheikh Amar lim fa bàyyi li fa des mooy mariage légalement ngir ndonooy ëllëg mais Marie ak Cheikh Amar jeex na kenn wéyatu leen la ko tas sa loxo génnu ci li tas benn jabaram ba des ci kër gi xaw ma sax turam sa loxo génn ci li ko bëgg a tas sa loxo génnu ci bul fàtte ne yaa ko tuumaal njaalo dëkk bi yëpp tooñ nga leen ñii suñ la rusalul Wally Seck ñii rusal la Doro Gueye buñ la rusalul Doro géy rusal la Cheikh Abaar nga toog ci dëkk bi di katt xale yi rek woo naa la appel une heure ak lu topp nga enregistré yëpp tegaat ko aw ma waxi suuf ak waxi kaw gis nga nag mënoo bëgg Cheikh Amar di ko yàqal ba mu tëdd feebar nga continuer di ko yàqal di uñi suturaam li ngay yàq dere Soukeyna Amar ne moo bëgg a tas kër Cheikh Amar du dëgg Soukeyna jigéen ju baax la ju am valeur la ku am dignité la waaye yow doon doomaraam bi nga doon doomaraam preuve bi yaa ko wane yaay doomi daara boo xam ne waroon Cheikh Amar di la laaj la Wally Seck di la laaj la Doro Gueye di la laaj masala nga toog ak sa koy bu gàtt bu tuuti bi mën a katt xale ba bëgg a dee fu ñu waxee nga ne yow yaa leen di defander di saaga ndey nit ñi loolu xamadi ak réew la te importance boobu ngay woote ko joxe amoo ko lépp lu buuba buuba sekk safaru Cheikh Amar bi lépp lum xam ci famille bi yaa ko ko wax ndax moom nga def allié bu seex di wax téléphone mooy xam li ñuy wax mu wax la ko yow ak ki Cheikh Amar tëjoon kaso ki Cheikh Amar tëjoon kaso bëgguma tudd turam Cheikh Amar am na xaritam bu mu tëj kaso moo ko tëj kaso moo ko génnee kaso yéen a ko tegoon dil ci trente millions Mimi Touré ya mais mën a defante moo tax bëgguma impliqué benn tur man du métti rek ma tudd ku ma bëggut a tudd ndax balaa may wax damay organiser li ma war a wax xam ko ba pare toog di ko wax kon Soukeyna na nga xam ne jigéen ju baax nga jigéen ju am valeur nga délégué munta yàq sa der sa jabar yi mag yi fonk leen bëgg leen ki tas ki nekk ki ñëw ak ñépp soo leen xamee à cause de Cheikh Amar te sa sutura mu ngi xawee ko ci dëkk bi de ni ma def ba jot sa tur ba jot sa ojoog délégué Amar noonu la keneen mën ko jotee jotewu ma ak yow duma la tudd awma ci yow affaire waaye buuba mii ak cheikh ak euh, délégué lu yàqu ci dëkk bi ñoo ko yàq te délégué bul fàtte ne yow yaa wax sa xarit ne jabar ji Cheikh Amar di seyal moo la moo la moo la moo la fayal appartement bi ca dammel yow ak di Amar bi ngeen doon tuxu nga nekk fa di katt xale ba sii Sidi gedd bàyyi la appartement bi bul fàtte loolu beneen ba ca des su ma wax dafay am seede day am seede li may wax day am seede yéen a ngi fàttaliku ko tudd si soxo génn àddina 2021 te nekkoon influenceur rafetoon lool délégué Amar ban jabaru ban kilifa moo doon doxaan kooku Khadija Sissoko dëkkoon Louga amoon jom lool daan dimbale yaayam ak baayam gaañu na 2021 la génn àddina ban kilifa moo ko doon doxaan te nga ànd ak jabaru kilifa bi ngeen dem sànni ko korte ba xale bi dee ku def loolu Khadija Sissoko gaañu 2021 ban jabaru kilifa moo ko sànni korte ci diggu réew mi ndax jëkkëram da ko doon jël lu neex ñu sànni ko korte xale bu dee innocent sol génn àddina just like that parce que mënut a ndax yow courtier jeeg nga mais courtier jéeg bu óoluwul kenn ndax àndi caga ngay ànd koo àndal enregistré nga ko wax nga ko baal leen ma maa tëj commentaire yi ma jox leen kaa yi benn benn ma ubbi leen dama bëgg a concentré ci li may wax <coughs> kilifa googu ngay bàkkoo naan ko laal laal la xale bu jigéen ba mu doon doxaan Virginie xale bu jigéen bi nekkoon Virginie te mu ko doon jël lu neex ubbi loon ko boutique yaa jël information bi wax ko jabari kilifa gi jabari kilifa gi tëj bunti wërsëgam doon ko sànni ay message di ko saagande numéro xale bu jigéen boobu 05 la mujjee maa ngi nii jàkkaarloog message yi jabari kilifa gi di ko saaga di ko menacé numéro xale bu jigéen bi may wax cinq la mujjee 05 pour jég ndaw si maanaam jabaru kilifa gi nga àndal mu xam ne li may wax man xam naa ci dara sosu ma nettaliwuma lu ma xamul lu ma xam te tiim ko lay wax message yi directement jabaru kilifa gaa ko yónnee jabaru kilifa gi turam see la commencé boo koy bind nekkee ci dëkk bi lu mooy ku bëgg jëkkëram bu tëjut sa wërsëg sànni la korte bu la sànniwul korte boole laaj internet ñu yàq sa der te ki nekk ci ginnaaw loolu di ko manipuler délégué amar génn ci <coughs> beneen ba ca des délégué yaa ngi fàttale ko xale bu jigéen bu jógee woon Gàmbi bëggoon a gis Wally Seck yow ak fecckat boobu fecckat bi may wax nag euh, balaa doomaraam yi jógee ci Sidi di ñëw la waxuma doomaraam imbécile waxuma ñooñu du ñooñu de wax day leer du amee cu du Amady Badiane benn fecckat la ngaam yi gudd nii rek nga xam ne tekkiwul dara amul xorom bëgg a gis Wally ngeen yóbbu ko seen appartement cité Damel yow ak fecckat bi ngeen koy laal xale bu jigéen ba ma kër la mujjee waale la bëgg a gis ngeen teg ko dil ba yóbbu ko vogue na ko dina ko gis après ngeen pare ci fajar gi yóbbu waat ko ngeen di ko round xam nga round mooy lan ci yi nga yéeg sa moroom yéeg ngeen di ko laal yow danga nga soloon protect ku góor keneen ki fecckat bi doomaraam bi moom soloon protect yéen a ngi fàttali ko loolu kon yow war nga wax ne da bëgg Wally Seck jigéen jugee ko ba gàmbi ne Wally la bëgg da ngeen demoon gàmbi fekk ko fa ko eh, concert bi may wax ku tudd Mouhamed Touré moo ko organisé woon gàmbi keroog bigi bii nekk seen TV posetam dafa riir ci biir concert bi maa dendoon nag moom mu mujj gis poset bi te gisul xaalis bi bigi li may wax dafa am seede bigi seen TV bigi 2STV concert Wally bi may wax gàmbi posetam bi dafa réer keroog nit jël ko Biggi mën na seede li may wax jigéen ji ci concert boobu la bëgg a gisee Wally ngeen tëgg ko dil mu fay paasam ñëw ba dakaar ngeen kate kate ko ay fan bàyyi ko mu dem man maa teseeg moom point ma ne ko diw looy def fii jigéen jooju mu ngi ci live bi di seetaan ma ne ko looy def fii mu ne ma dama bëggoon a gis Wally waaye den ma foo wan naan ma ne ko ku la foo wan naan mu ne ma Cheikh Amar ma ne ko Cheikh Amar yi lan ah, ah, ah. du Cheikh Amar de ma ne ko wan ma nomba mu wan ma nomba ma woote ci laa la njëkk a woo naa la dama jaawale nga dema kan la Cheikh Ahmed ma ne la waaw ma ne ko kii délégué Amar la santul sax Amar baayam da daan dawalal Serigne Saliou fa mën a yem bugguma wax noo juddoo parce que man duma xasta ci juddu ndax doom tànnut num juddoo te ki juddu ci yoon ak ki judduwut ci yoon dara leerul ñu ci dañoo màgg rek ñu ne kii seen baay duma xasta ci waajur ci àddina duma ko def ndax li sa baay def moo ko def li sa yaay def moo ko def man yow laa amal affaire sa baay tooñul ma sa yaay tooñu ma du wax ci ñoom mais nan nga waxee ne Wally Seck nga bëgg yow doo musicien man xam nga nan laa bëggee Pape Diouf mosuma dem baalu Pape juuf te dagguma billet ci àddina lu mooy benn yoon man damay jënd taabul ma dem ba rusa jënd benn taabul di jënd ñaari taabul ak lu ko ëpp man Cheikh Ahmed su ma woyee ma valoriser woy bi jox ko animateurs yi ci Sénégal foo tollu dégg danga ciy dóor di ci fay ndax woykat amul lu mooy mu woy la nga indil ko mbooloo valoriser lam la woy teg ko ci rang mu jub lii laa séq ak Pape Diouf parce que dama koo bëgg yorut suma dépasse yorut suma njëriñ yaakaaruma ko waaye mbëggeel gi ma ko bëgg te muy musicien mënuma koo jàppalee dara lu mooy jàpp ci la muy def muy aaram ndax yàllaa ko nattoo baat bu neex muy wéyal jaam ñi waaye yow lan nga bëggee waali bu jigéen ñi bëggee jënd billet nga jox leen sa koy bi katt leen ne bu leen dagg billet ñëw ñaanal leen ticket ñu dugg yow ni ngay bëggee Wally Seck bu ko ñëpp defoon Wally dafay doon gàcce ci coon waaye du doon ndam ak monument ak icône bi mu doon ci musique sénégalais tey Wally du ko def parce que doo jënd CD doo batterie doo jënd billet lépp gratuitement la lay ñëwee te boo paree Wally mosal yenn saa yi sax mu jeex nga dem kër waale pour mos laal sa deux cent mille cent mille francs yow da ngay am cachet comme fecckat yi dangay am kase comme Benjamin da ngay am kase comme Lil Pro te yow doo dar maanaam yaasa bi doo ci sople yow waali danga nga koy déranger kersa ak ngor guñ ko yaree moo tax mënul laa wax sa biti waaye waali sekk rek waali sekk képp bu doon moom ak moom nga ba ko moo ko gënal nga parce que jëriñoo ko dara saa yuñ saagaawaale ci nga nekk te dafa am soppe yuy créer noonu yow dangay ngay nit noonu ndax jabari kilifa gii tey lim dégg ci man munoon na koo bañ a dégg te yow yaa dugg ci geer bi naan waaw ku dorogee bi mu laal yow da mën a tere wax ci dorogee yow. yow ak Adama da ma mën a teree wax ci dorogee man Amérique laa nekk maa ëpp sécurité Bassirou Diomaye Faye kenn du ma laal ragaluma kenn ci baatin. ndax allahuma rek nga mën te yàlla nangu lu ko neex lu yàlla dogal ci man fa lillahi alhamdu man su ma diggante yàlla sama fuula I don't care mooy suma buur lu mu def ci man neex na ma daf ma bëgg a rey na rey daf may may na ma may daf may xañ na ma xañ fa laa toll ak yàlla man ak suma borom fa leen toll dossier délai yi nekk suma ordinateur bii ma tiim nii billaahi wallaahi tallaahi bu ma ci wàccee du taxawaat senegal te moom dooro dina xam ne kii xam na li muy wax ndax dafa am noonu ci dëkk bi te ñoo ma ko yónnee man dew ma ñëw ma demu ma ñëw ma mais nag da di borom njaboot te yow ngay doomaraam di imbécile jaroo ma yàqal ko te wax naa leen ko ma waxaat leen ko homme d'affaires boo koy dimbale projet ngay pousse mais bu ko tudd moom boo ko defee center of attention rek yàqal nga ko homme d'affaires boo ko bëggee pour jàppale ko dimbale ko boo defee attention yi ñu dem ci moom rek da nga ko da nga koy yàqal lu baree bari ma wax benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn quinze seize dix-sept dossiers yu wutee leen ma jox ci Doro Gaye kon soo xamadee sa xamadi bay saaga suma baay bi am soixante-seize ans xamul lu dul alxuraan xamadi sa xamadi bay sulli suma yaay ja ca àllaaxira di ko saaga jëlal sa responsabilité mais bu ne Wally Seck ak Doro Gueye bu leen tudd Wally saagawul saagawul te moo la gën a réew fuuf gën la capable gën la bandi ëpp la xaalis gën laa siw ba pare gën laa baax le nag Wally la gën a baax le woykat bi dégg naa ni micro bi baaxee la baax le yaay dégg kon dama bëgg nga régler te génnee sa caaxaan yi ñoom Wally ak Doro loolu du dox tas nga kër Cheikh Amar tase Cheikh Amar ak Marie sa ojo yaa ko siwal mais ñooñu sëy neen ci mbëggeel sëy ci sutura tas ci sutura te kenn xamalu leen du yaa wax sa xarit na ko Marie Amar moo yónnee moo yónnee si wujjam bi di ko saaga wujj bi jël téléphone yi Cheikh Amar saaga ci mari mari yónnee audio yi xam nga li ko Cheikh Amar wax ci yow sa wax yaa ko wax de li may wax ni Cheikh Amar bu ko déggee dina xam ne inventé wu ko yow yaa wax ne Cheikh Amar moo ñaan jabaram bi na ko bul ko topp ndax njaboot gi dañuy màgg kooku doon jigéen ju baax na ko duma ko tontu audio mari Amar rek génn kon yow fekk nga mari Amar ci suturaam nga xaawi ko ndax kenn xamalu ko dara woy wi ko Youssou Ndour ak Pape juuf woy boobu rek defar na mari àddunaam ba ku ne foog ne ci jigéen ñu baax ñi la bokk nga dem uñi suturaam di katt jigéen ñi ci turi wàll doo dagg billet doo baatare doo maye ba pare di laal kase te bokko bëgg-bëgglu bi ngay bëgg-bëgglu wàll c'est pas vrai bis bu la waali arrêté woon a ñamal ci la waali di xam ne bëggoo ko mais xam nga yéen da ngeen comprendre jeu waali ak yéen soo biis boo ci nekkee doomaraam yëpp danga leen di leem sa boor bu ñu la jëriñu tit musal la ci ay saaga ak xaste kon délégué danga ma saaga ndey ñetti yoon ma dóor a génn def benn riposte man ku ma joteel yaa ma tooñ maa yeneen ñaari dossier nag bés boo jëlatee sa téléphone bi message ma wala nga génnati ci àddina am lenn looy wax ci man su ma ñëwaatee lii nga dégg dangay ngay dégg lu ko gën a pire lu rekk laa am lu may wax Adamo dégg naa la yow yaay ubbi sa tiktok bi nit ñëw di ma saaga Adamo xanaa nga dof yow waxoo woon génn nga man maay sa papa may sa kilifa nga toog ubbi sa tiktok bi nit ñëw di saaga nga ne man ngay raasaatu gis nga coow yi Mia Guissé bi fi ma signalé ak fi mbir mi nekk du benn bugguma woon a jaar foofu sax mais dama leen mën su may geer damay cax ngeen ñëw di firi lu mi yaa gisee lu muy doyee farba lu ko farba di doyee farba yow la doon jox xaalis pour ngay saaga Ousmane Sonko ak i def say mbir ak di ko défendre Mia ñun dañu dëkk ci dëkk bi yow jigéen nga man défenseuru jigéen la ambassadeuru jigéen la li ma la wax lu simple la danga doon sëy sëyatuloo singul mooda ku ne xam na ne dafa métti yaay ak doom man su ma la defaralut duma la yàq yaa ngi dégg lu ma la defaralul ci àddina duma la ko yàqal li ma la wax luñ dul mën a teggi la te kenn kenn du ko mën a dindi ndax dama xam li ma doon wax lan la maa ngi démb maa ngi doon démb maa ngi doon xool sa même ma ñëw yaa ngi maa ngi doon xool sa jos YouTube yaa ngi dugal quinze vidéo am fa soixante dix million cent dix neuf mille cent trente six vues mu mën lu bari nag Instagram ñëwul yeneen a yeneen ñëw sa live streaming yi mën na jënd téeméeri oto waaye am njëgi oto ak jëndal sa bopp oto du benn am njëgi oto ak jëndal sa bopp oto du benn nga doon jigéen yow kenn ba jëndal sa famille almadi deux kër yow nga luwe fi ngay dëkk loolu ndam la sak la doom yaay ju nekk boo sañoon sa doom bu jigéen defal la ko loolu den la ko yéene ñun sa càmmeñ leen duñ sa ennemi dem nga tirki wàññi sa biir defar sa forme gën a mool am nga ci droit sa jëmm la du suma bos mais man Cheikh Ahmed booy weddi suma wax faire très attention duma waxantu duma làmbatu nga ne ma vérifier suma information vérifier naa ko ba xam ko ki nekk sa ginnaaw ki lay jël lu neex ki lay jox sa musique nag loo ci am yàlla na la jig du ma musicien man géer la yow danga ma war di wéy ma lay may benn bi góor laa ngay jigéen dama la war a gis ngay kuti kuti ma ñëw jàppale la jàppale boobu laa la ne yemal sa palaas say tas taxuta moom sa bopp a ñàkk kilifa fu la neex dem lu la neex def yaa ngi yéeg ci avion yi di dugg di tëjee ka tëjji ni xale yu jigéen ñi Dakar yu te artiste nga yaay nga modèle nga lii laa la waxoon lii laa insisté juguma pour yàq la su ma la yàqee lu may jëriñ duñ rival man jàkkati àndalaa buri laa musicien nga li ma mën mooy nga am jëkkër mu nooy la nga jënd master sa déglu sa musique mu féex kon bokkuñ yoon mais li may wax dama ko xam te duñ may défier parce que du ma sos lu tax ñu ma tudd ba nga weddi kon daanu nga ci pièce bi mais lu tax ñeneen ñi lay tudd weddi ko Mia bàyyil sa xel mi ngay fooy te sa yëfi konor yi génnee ma ci dañu dëkk ndakaaru xam ndakaaru xam li xew mais bugguñoo yàqu gor soo ma weddee nag ma teg preuve yi ci taabul bi nga xam ne Cheikh Ahmed mii fenul yokkul ki kii dugg avion fii kii dugg ngeen tase mais hôtel boo check in am na ñu la fa xam am na ñoo fay xam ni ngay amee confiance wax keneen la keneen di amee confiance wax fii senegal la dafa xat gisoo bu soj amee ñu ñëppay sojandoo ndax dama lay fóon nga fóon ibu ibu fóon roqi roqi ñëwaat fóon ma ñun ñëpp ñu soj ñun nàmpaleur yëpp ñoo bokk fu ñuy nàmpee dama ne caractère gi nga amoon ak dignité ji sa sutura yor sa jëkkër di sëy dëgg la yaa ngi doon dund naqar mu naqar ñu ñun ñëpp man ku toroxal jigéen laal ma mais nag yaa ngi woon ak sag ak sutura mais na la leer ne sa bopp ngay nax sa xel mi ngay foowe nit ñi xam neen lu xew te amatoo sutura ci dëkk bi am na artiste yu la gënoon a siw tëdd tëdd bi moo leen ñàkkaloo valeur danga di xale tollu ci mën ko mën a woy saf nit ñi yàlla may la bare laf cat suma gémmiñ ak suma gémmiñu moroom mais dama bugg nga tegu ci raay bi te dem te sooy weddeeti ay propos génnee ci Cheikh Ahmed Cissé kilifa yi nekk ci ginnaaw écran bi kenn laa ci faalewul kenn yorul suma dépasse damay jaay sumay àndalaa buri am suma xam-xam seet rek sant dollars laa koy defee bët bu seen nit ñaa ngi ran xiifuma maruma te dama doylu duma ku ñuy contrôler duma ko ñu contrôler de ba rek man signaler droit dem gauche rek ba nga weddi lu tax weddi woo bu ñeneen ñi et pourquoi weddi woo loolu mbaadu mbaadu dëgg la Viviane suma parole yi yow laa koy adressé directement Viviane nduur yaayu Philippe nduur ak Zeyna Ndour yow laay adressé suma parole yii gaaruwaale wu ma junj ma suma parole yi mooy maa ngi lay jaale sa frère bi gaañu muy chrétien te diina chrétien sell lool yal na ko yàlla jéggal te yërëm ko man bokk ma ci ñu gëm ne ñoo ñaanal chrétien man dama gëm ne jaam bi yàllaa ko moom su génnee àdduna neen ko ñaanal yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla yërëm mag ngi lay masaw Viviane xoolal fi nga jaar ci musique sénégalaise biñ la njëkkee jox micro ngay fecc ba fi nga ñëw tey ñaata xaaxaam moo nekk ci yoon bi nga dëgg jàll ñaata fakastal moo nekk ci yoon bi nga dëgg jàll sa sëy ak buuba ni ko yàlla dogale la ca xew ba nim jeexee sëy du gàcce tas du gàcce yàlla wërsëgal la ci ñaari bant ñu bari bëgg a doon seen yaay doon seen baay yàlla may la ko nga nekk single mother for a long time téye sa ngor ak sa personalité ak sa jom di wéy muy neex fans yi di la bëggee gis nga icône boobu nga doon yaay boobu nga doon moo la warut a permettre nga làq say doom toog sa palaas sa coin ba pare di jëflante ku mel ni Adamo di yëkkati terangam di ko jox muy toog muy dox di saaga ndey nit ñi teyoo ngay ndey ngay exemplaire ci musique sénégalais kenn mënatut a wax musique te Viviane bokkut ci boo ne Youssou Ndour danga naan Viviane mais loolu kenn mayut la ko kenn puusut la su doon ne sëy ak nduuree ni moo la ko may boo divorcé dem mais sa wëy yi gën a neex bi nga divorcé la ba sa doom yi di wëy ngeen wëy mu neex mais nan nga mun a associer ak quelque comme Adamo buy saaga ndey nit ñi di uññi doomi ndey doom yooyu muy wane seen bajo ak Zeyna yem ay doom leen rek te bu nee Ndakaaru leen ñëpp a tëradi koo yi muy waneeg Philippe yem rek ak bu Cheikh Ahmed Cissé ñun ñëpp ay doom leen adduna moo tëradi jekkut ci sa image warut ci yow en tant que ambassadrice bu culture sénégalaise euh, euh, musique sénégalaise yaay sénégalais jigéenu référence Macky Sall bi muy dem lu mu la takkal ordre de national de xawma lan Cervelé garab bi gën a kawee ci réew mi ñu tapp ko ci yow julli mayut la ko de Viviane jàng alquran mayut la ko or mayut la ko xam nga lan moo la ko may musique culture culture du Sénégal nag bokkut ci ku ñàkk sutori di xaawi gor yi nga associé ak moom sa association ak Adamo laa bëgg sénégalais dénoncé ko parce que du lu jaaru man aw maa ngi benn problème duma la wax lu bon ndax xaw ma ko duma la def lu bon duma sànni kàddu sa njaboot ndax xam naa lan mooy njaboot ndax dama jur nga jur mais boo xasee ba nekk artiste noo mel sénégalais ñoo la ko def sa wëy yi ngay wëy ñoom la loo mën ñoom la réew moomu nag benn sénégalais ci biir sénégalais fu mu woowee jigéen dafa génnee sa bajo ñaar ñum woo kattante la génnee yow nga mën a yaayoo kooku uuf sa doom yi sa kër ndax bu génnee woon Bajob Zeyna ak li Zeyna nekkee Ndakaaru ndax dina la neex du la neex doom doom la rek fii ku sa yaay sang nga set ku sa yaay sang nga set ñun ñëpp a yem xam nga ne suma yaay bu doon dund dina mën a noppil bàyyil internet doom yëpp a yem rek sa doom ak suma doom a yem waaye danga di yaay di ambassadrice di jàmbaaru fàkk tëdd xuus sa yoon ba yegg si fii sa association ak Adamo peuple bi ñoo ko dénoncé te yow xam nga ne waru la Adamo lan la mën a yokk sa carrière Viviane te mën na xawi sa sutura ndax Sénégal ku siw am noonu ku am am noonu ku réussir am noonu te siw nga am nga tuuti xaalis léeg-léeg yàlla defal la sutura mën nga wéy bëri nga noonu te sa sa sa sa sa jikko ni nga mel ci bañ loolu rek daf lay créer noonu ku mel ni àdduna fu mu taxaw ne Viviane loolu loo war a dagg la loo war a bàyyi la dafa am ànd yoo xam ne même boo koy def parce que buggoo ku uñi sa njaboot ak nangam yaa ngi sàmm dara which is very normal loolu lu normal la mais bañal mu lay tudd bañal as ànd bi fës ci kaw du la jëriñ dara man message bii laa am pour yow directement Viviane rafetul warul te kii amul sutura day téye ojo day enregistré ndax ci toog muy dox la nekk TikTok bi ñii dañuy ñëw pour déglu jàng reetaan dem ñii ñëw pour liggéey man damay jaay jigéen ñi di jaay mees Adamo lan lay liggéey TikTok lu mooy yow nga joteeg nit jox ko ko mu saaga ndeyam ñaata nit la aadam moo taf te jotewuñu moom dara nitam la xam rek kooku na ko kii rek mu génnee taf wax moo tax ma indi sénégalais wan leen ne kii du ci dara dafay sóob rek xamul dara ci lu muy wax yéen waa Doroge maa ngi dégg seen wax di dégg seen jàmmat man awma problème ak yéen gis ngeen communication ñett la nga jëf communication la nga wax communication la nit wax nga noppi communication loolu yàlla ak yonantu ñoo ma ko jàngal xam nga lan mooy xaddis sunna mooy lu yonantu wax wala mu def ko wala nga def ko ci kanamam wala nga wax ko waxut la bàyyi aadamoo su génnee taf suma yaay bi ci àllaaxira ne door Doro Gueye tax mu di ma saaga ni ngeen di ñaanee intervention ku ne ngeen woo pour ma noppi ci Doro ndax waxoon ngeen ko aadamoo pour mu noppi ngeen ne bi ma demee Gàmbi dama toog ci oto di saaga ndey maam Makhtar gi te saaga yooyu rëccuwuma ko bàyyiwuma ko ni ma ko waxee woon démb noonu la ma neexee tey ku fay 6 euros da nga commentaire ku fayul 6 euros da ngay tàppate tey seetaan Pape Diouf na ma damay ànd ak Matar Diop suba teel ak beneen kilifa ñu dem ci Mame Makhtar Gueye ñaan ko njekk mu baal la nga ñëw Pape Diouf woo benn ñawkat ne ko ñawal ma ñaari dara su ma rakk Cheikh Ahmed laay yóbbu Mame Makhtar Gueye mu jégalu ko mu ne ma Cheikh Ahmed ma ne ko mu ne ma danga mer mais saaga du yow ma ne ko dew ma jéggaluwuma mu ne ma mbëggeel rekk a ñu boole ngay suma géer may sa géwél may sa mag ngay suma rakk su fekkee ne dangay ànd ak man di saaga ma aaya la nga bàyyi dama bëgg suñu ànd dakk tey bul ñëwati suma kër duma ñëwati sa kër bul ma wooti duma la wooti ma toog ñaari fan xam ne bëgg naa Pape Diouf ma ne ko bàyyi na keroog ba tey kenn déggul ma saaga Mame Makhtar Gueye te tey laa ko gën a contre tey laa ko gën a bañ tey laa ko gën a jéppi tey laa ko gën a sib loolu la artiste di def ak sa nit mais yéen aadamoo day taf nit ñi di leen saaga ngir door Adamo day taf nit ñi di saaga seen ndey ngir Wally Seck Adamo dafay saag taf nit ñi di saaga ngir Vivia mais yéen du ngeen ci wax noppi ay complice ngeen yéen la neex ndax man bi mu neexutee Pape Diouf dama ko ba te Pape Diouf du suma kilifa yaakaaruma ko yorut ma mbëggeel képp ñu boole ci kaw respe ak bëggante jabaram jàpp ma jëkkër doomam jàpp ma tontoo doomi Pape Diouf du jaar suma tur doomi Bébé baax du jaar suma tur bu ci jaaree man noq ko ba mu tëdd ndax baayam la su ma demee ci kër ga paap toog dama naan lii laa bëgg ñu togg mu may ma cër bi ndax rakam la li mooy artist li mooy nit ku bëgg nitam fonk nitam keroog laa gëj a saaga maam Makhtar Gueye ci àddina kon yow Viviane Wally Seck dooro Gueye aadamoo saaga yi muy saaga nit ñi neex na leen ndax dañuy saag day sàgg nit ñi ngir yéen noppi gi ngeen ci noppi moo tax ay complice ngeen lii nag la sénégalais yi bëgg mu dakk man awma problème ci Adamo awma problème ak yéen Viviane boo ñëwoon Amérique bi damay ñëw sa scène nga woy ma wëndeelu ba neex fecc lu rëy musicien nga fans la soo ma wooyoo dama lay wuyu suma sër nga Wally Seck li ma woy dootul daanu ci àddina maanaam bégal na ma ba mënatuma mer ci moom problème bi waxuma ci Wally dama ne nit ki nekk ci société bi di uññi taati jigéen yi di lor ay nit di yàq sëy di rey ay bakkan di gàcceloo famille yéen ngeen doon ay icône associé ak moom mu am droit ci ngeen am droit ci moom muy saaga nit ñi di taal live ngir seen jëmm yi te ngeen doon artiste noppi ci ay complice ngeen lii neexut a wax waaye mooy dëgg parce que loolooy xadd sunna yonentu ku toog ci kanamam def waxul la dara rek loolu sunna la kon yéen kuy taf nit ñi di saaga seen ndey ngeen nekk artiste di ko dégg te waxu leen ci dara mu neex leen mu naqari ñi leen bëgg ak yéen seen bopp ay complice yu mag ngeen ci dëgg ku ko dégg xam ne lii dëgg la <coughs> beneen bi ci des Adamo yow laay waxal adressé parole yi dangay yuuxu ne yaay boos de nigri nigri xaw ma nigri commentaire yi may leen ma tuuti dinaa ko ubbi damay kaakaa bi mu des benn ma ubbi leen commentaire yi ngeen zolo ne dangay wax ne yaay boos de nigri sa plateforme boobu ngay def di am 10 000 cas maa ngi la gis ngeen di yuuxu naan waaw sénégalais gambien lii du mbiru sénégal ak gambie te bu dee mbiru sénégal la man sénégalais la légalement dëkk ci dëkk bi constitutionnellement kenn mënuma génne ci réew mi kon bàyyi leen waxi gambien la man bu ma dee gambien kon capitaine équipe nationale bu Sénégal français la Kalidou Koulibaly France la jógee te moo njëkk indi coupe d'Afrique biir Sénégal kon moom Séné france la kon bu leen wax ne mukk sénégalais la Abou Diallo français la du sénégalais Demba Ba français la Karim Wade du sénégalais génn leen ci li ngeen nekk mbir mi mooy danga am sa plateforme bu am vingt cinq million j'aime te musoo wax luy jëriñ réew mi toog muy dox rek toog rek muy dox waa fooguloo ne tey bu sénégalais bëggoon laa jàppale ci indi ci maanaam nu ñu lay jàppale Adamo awuskiti bi nga tafoon di ko saaga sénégalais la de képp koo mës a taf sénégalais la musoo taf allemand yaa ngi biir Allemagne tubaab yaa ngi dëkk ci lu tax tafoo tubaab bi làkk allemand saaga seen ndey dofuloo parce que xam nga ne tubaab bi duñu du ñu la may xaalis te dañuy yóbbu sa ndey ci kaso gi nga tëdd mais sénégalais yu innocent yi te yow Adamo ñetti méthode nga doon utiliser dinaa ci ñëw benn pat benn mais duma yàkkamti kaa yi sénégalais yu innocent yi nga dugg seen biir boroom alal yu faible yi politiciens yu faible yi di katt ci caga ji nga di leen xamal nga jàpp leen benn place ñu lay jox Adamo ci hôtel ci restaurant nga daan liggéey di raxas bool léegi da ngay toog muy dox lii la Pastef di bañ mais Pastef bañuñ sëñ Cheikh Mouhamad Muntaka mi teewal Cheikh Ahmadou Bamba toog ci jalu murit bi ñu koy jox muy dugal ci yoon yàlla ak yononto ba taxawal université 34 milliards Pastef ñoo bañ lii te bañuñ lii Pastef mënuñoo bañ ndaw lu jàng am xam-xam ba nekk directeur toog ñu koy kilimal muy liggéey ci ay dossier Pastef mënuñoo bañ loolu te bañuñ loolu li Pastef bañ mooy doomaraam bu mel ni Cheikh Ahmed Cissé Kaliphone Sall Adamo nga ñëw jox leen xaalis ne saagaal asgor bu deful dara nga jox leen xaalis ñu toog lekk lii la Pastef di xeex lii mooy toog muy dox maa ngi dégg di ci gis seen bopp ak ñeneen ñii naan damay béréngu muy dox su la neexee doxatal muy dox yooni Pastef nekku ci mais ñoom li ñu bañ mooy lu ñëpp bokk nga jox ko benn doomaraam imbécile bu tekkiwu dara muy saaga as góor lii rek leen baña sa simple sa plateforme boobu aadamoo kañ nga ko mën a utiliser kañ nga ko mës a utiliser ci àddina indi benn jigéen boo xam ne daf lay topp di la suivre mu ngi jaay ay cheveux nga dimbale ko jox ko plateforme bu cinq minutes mu jaay njaay mën a am dara au moins mu am visibilité dix mille personnes gis ko dimbale nga jigéen kon su boobaa boo yooxoo wallu ne Sénégal ak Gambie sénégal yu am bopp yi dañuy ñëw dimbale la mais kenn mënu laa dimbale aada bajo nga doon wanee ki koy saaga ndey du aada Sénégal du cosaanu Sénégal du diine chrétien Sénégal du diine lislaam Sénégal du du dara loolu sa phénomène bopp la boo doon utiliser di intimidate nit ñi pour mën a am dara dugal sa poche ban teen nga mësa gas ci réew mi nit ñi di naan ñu ne Adamo gas teen bi kon nañ ko dimbale ban jàkka ban jumaa ban église kon bul woo wallu sénégalais danga leen di tooñ ku fekk sénégalais bu am bu xam boppam toog fa mu war a toog juddoo fa mu war a juddoo jàng ñëw ne yow lay dimbale fu muy jàpp nan la lay dimbalee ak nan la koy defee mënta nekk aadamo soo nekkee ci sa doomaraam sa yëfi doomaraam di def yëfi imbécile ba yàlla indi doomaraam première classe première catégorie bu bees tàq dajji ko mu téegal la toroxal la bul yuuxu wàllu naan Sénégal ak Gambie foofu baaxul Sénégal ak Gambie bu ñuy dimbalante dafay mel ni bi sëñ Tuubaa indee yooni murit Gambien yi dem nekki murit dafay mel ni bi Maodo leeralee tarixa tijaan ci ndigalal Cheikh Omar Fouti ñu dem jàpp tarixa tijaan dafay mel ni bi faydatu Ibrahima ñëwee allah allah gi jokkaloo ñëpp ñëw dopp ci Baye Niass lii la sénégalais ak gambien di dimbalante dafay mel ni bi usine jumbo amee ñuy transformé di ko yóbbu Gambie di jaay dafa mel ni usine Sokosim di yóbbu ay ciment ñuy jaay Sénégal ak Gambie dafa mel ni bi nga xamee ne Casamance dem fa jaar biir poste kër ay eh, moo gën a jege Macky Sall ak ah, eh, Abdoulaye Wade ak Yaya Jammeh nanguñu tabax pont Macky Sall ak Adama Barrow inauguré ko sénégalais mën caa jaar di liggéey koom-koom bi am lii la Sénégal ak Gambie di dimbalante mais pas doomaram bu mel ni yow mënul nekk génnal ci loolu. kon lii du Sénégal ak Gambie fi ngeen di jàppandu fan yi naan waaw sénégalais nanga ma wax leen diggante sénégalais ak man maa ko ñemee wax sénégalais dafa mën a fen gambien iñaan sénégalais dafa mën a fen gambien dafa iñaan sénégalais dafa xel mi dafa rëy gambien muus sénégalais dafa mën a ngistal gambien mën a joxe sénégalais dafa bari xam-xam mais du jëfe gambien dafa mën a jëf mais xam-xam ba bëriwul li mooy seen différence ah mais iñaan ak fen bu gën a bon alxasadu laa yasuudu beneen ba ca des Adamo dama bëgg ñii associé ak yow ñu bàyyi xel bu baax li may wax dama bëgg ñiy jëflanteeg yow ku ci mel ni Leuz laay jël exemple Leuz est-ce que xam nga ne Adamo bi muy wax ne yow da ngaa katt du sayre rek xam ngeen nu Adamo di def dafay am photo taatu neenu jigéen laaj la xaalis nga jox ko ko ba pare mu katt ndey photo yi ci internet bi waaye balam koo katt ndey non Adama Adama yàlla mënul ma woon a ñàkk indi ngir dimbale sénégalais yi ci yow maa ngi la koy wax rek gëmuloo ma dama la topp ba nga sës deux ans ci ginnaaw Adama ban stratégie lay def dafay am sa photo wala sa vidéo yónnee la ko laaj la xaalis nga jox ko mu encaissé ba pare may la kenn mu tëddee la kim lay may da koy yónnee xaalis na ko am naa gel nangam nangam nangam kooku jox ko xaalis mu nga tëddee mu laajaar enregistrement ba pare live la sa àdduna yàqu maa ngi dajale huit personnes victim de Adamo chaque deux semaines damay indi victime u Adamo ku bëgg a wax mën nga wax sa tur ne lii la ma def ku bëgg ta wax nëbbal sa tur nga wan ma audio bi ak lom la laayfal ma teg ko wax ci yow victime de Adamo chaque quinze jours lay am sénégalais ngeen xam Adamo nan la yàqee dundi doomu aadama yi nan la toroxalee jigéen nan la tasee sëy nan la tasee famille nan la reyee sax bakkan ci uññi suturaas gor ndax xam ngeen rab bu tudd golo bu doon yàq ci tool nga yoot ba bett ko na ko yaa ñàkk jom billaahi dafay xaru dee waxuma la gor doomu aadama donc dama leen di jox rendez-vous le quinze incha allah ak chaque la trente damay indi victime des Adamo ngeen xam internet sosal gor nan la métti ngeen xam yàq doomu aadama nan la métti loolu yëpp dama bëgg ngeen xam ko bu baax moo tax ma di leen di indil épisode boobu victime des Adamo ki mu wane sa taati yaay wala sa taati baay wala sa taat wala sa taatu mbokk yow sa bopp yaay ñëw wax nan nga ko dundee nan ban ma la la def lan la la yàqal ak nan la yàqee si àddina mbaa nga koy njëkkee ci bëgg fàllu le 15 incha allah Adamo guerre bi duma ko indi ci sa sa data ndey sa ndàng ah ah étape la yow tam la fu mu nekk victime de Adamo pour yee conscience nit ñi am fu ma jàpp nit ñi ñu xam yow yaay kan ci loolu lay dox mais pas yow maag yow du komba dootuma la tontu mais ñi nga sonnal yàq seen famille yàq seen life ñooñu lay indi sénégalais yi xam nan la métti ci biir simpati boobu noonu laay amee sénégalais yi bañ sa ndey kon benn yàqul dama lay wax li may def ak li tax ma di ko def victime day aadamoo nit toog dégg xam ne kii dañu wane woon taatam tas na sëyam wala yàqule na am na koo wane taatam mu nga Guinée équatoriale daw mbokkam yépp bàyyi sëyam bàyyi benn doomam dama leen di jël chaque quinze jours yéen ñëpp bu kenn ragal nandite la ku ñëw indi sa victime soo buggut wax sa tur ngir yeeyaat wax ma lu leer jox may preuve ma ñëw kaa ko ndànk-ndànk aadamoo munoo munoo woon a ger waroon a dugg ci man muy benn ñaareel ba sa plateforme force di nga dimbale jigéen ñi ak sénégalais yi ñuy jaay sinon dañuy xam ne sa bopp rek nga fi nekkal mais dimbale woo benn sénégalais boo leen wootee wallu duñ ñëw kon amatoo choix faaw nga def programme social buy dimbale nit mënoo ci dara katt ndey katt ndey nangam neex na ma ne maa leen di ubbil commentaire yi ngeen zole ne tuuti ah après dama koy tëjaat dama réew ba taf na mu saf lay def xale mu ubbi leen tuuti ngeen zalone amul yar ku ne na na commentaire lu ko neex amul yar amul respect ku ne lu ko neex rek ah ku ne lu ko neex waaw zalone leen tuuti benn cinq minutes laa leen may ngeen zalone après ma tëjaat donc Adamo comme yow da nga woo wàllu sénégalais sénégalais njëriñ leen koy doyee bi Ousmane Sonko ñëwee pour ñu bëgg ko dafa post dafa dafa porte combat wu askan wi askan wi jël ko kim tànn ñu ne ko kaay doon président de la république kon yow soo bëggee sénégalais di la wàllu sa life dama bëgg nga yéegal ay jigéen Sénégal dafa bëri jigéen ñu am jom ñu jàmbaar ñu nangoo liggéey nga di leen yéegal sa dix mille personnes sa huit mille personnes di leen yéegal waaw waaw sa sœur boobu boole maag moom victime yaa ngi wàcc ndànk-ndànk Euh, Mr Diop New York sa sœur boobu danga may booleek moom ñu génnee ko ñu def lépp man après bëgg fàllu ma jël ko le 30 chaque le 30 ak le 15 les victimes des lu mu yàggoon a def yëpp benn benn dafay ñëw donc yow su ma paree live bi dinaa la woo John Mendy maa ngi gis sa call I will pick the call after the live ah I love you brother. léegi comme man maay président TikTok man maay bàyyi gars yi doomaraam yi maa baax ci ñoom man maa leen di regle donc aada comme nga ne Sénégal nga fi nekkal ñu ngay ñu ñu ngay ñu ngay boole live bi de ñu ngi boole live bi de wax neen ma ne dafay dagg dans une minute dimbale leen ma aada fair play ndànk-ndànk may ma rek ma wax man waxu ak yow en tant que président de la république du TikTok damay waxtaan ak nit ñi damay waxtaan ak nit ñi loolu la rek may ma rek ñu fair play ko ndànk-ndànk amul mer tappateel leen ma balaa mu koy dagg aada wi fi may ma ñëw waaye gis leen mbombe mbombe su ma sœur kon su fekkee ne njëriñu sénégalais nga bëgg aadamoo ak lu baax moo la tax a jóg sa live bi del yégal ay jigéen ñuy jaay seen njaay mi jigéen ñi am neen jom nangu nañoo liggéey góor ñi yoratuñ téyeetuñ te waay juri sonn neen jigéen ñi sonn neen nangu nañoo liggéey te ñoo la dooleel ñoo lay seetaan ñoom ngay uñi seen taat ñoom ngay uñi seen sutura ñoom ngay tas seen sëy ñoom ngay toroxal li ma lay wax dama bëgg àdduna yëpp àtte bu fekkee ne jël nga ay jigéen ñuy jaay dina dina wàññi defet bi mais soo ignoré loolu jëloo ay jigéen ñuy jaay sa plateforme su boobaa dangay wane carrément sa bopp moo la ñor te sénégalais ku sa bopp ñor ñu bàyyi la sa bopp. kon ñett yi rek laa doon mujjee ak yow benn mooy kilifa yi la wër neen xam ne buñ la terewul ay saaga. ba tey nangoo continuer associé ak yow kon ñoom ay complice leen su boobaa ñun dañuy tourner ni ngay daqaare ndey nit ñi ñu daqaaree ko seen ndey ñoom ñëpp ndey ndey la rek ñoom amuñu choix den lay aaya saaga nga ba ko munuñ ko ñoom ñu dispatch ak yow wane na ñun ay woykat leen porteur de voix leen ànd ñoo koy uñu sutura jigéen loolu ñoom ñooy def choix bi du yow Doro Gueye Viviane gis nga Wally moom pare na ci Wally moom nante la pare na ci waxuma kooku mais lii moom foog ñoom ñu def ko wala ñun peuple bi ñu tourner seen kaw ñoom ñooy xool associé ak yow wala associé ak askan bi dineen xam nag yow Adamo yaa gënal Viviane askan bi wala moom vi askan bi moo la gënal Viviane moom mooy choix jigéen la respecté neen ko xamaluñ ko lu bon duñ ko waxal lu bon nit ku baax lay yaay la amuñoo moom benn affaire mu ci suturaam yàlla na jàmmam yàgg mais moom Viviane mooy xool askan wi wala kiy tuumal askan wi di génnee taatu askan wi ñu ngi koy seetaan amuñoo moom benn problème yàlla na jàmmam yàgg Viviane lu mu wëy yàlla na gën a neex mais moom mooy xool dooro Gueye mooy seet moom mooy seet Wally pare na ci yow te danga nga xamul ne bi nga duggee ci wàll yi ba tey da ngay yàqule beneen bi ci des yéen askan weeg jigéen ñi laay laaj aadamoo dina commencé di leen dimbale ngeen di jàllale ci plateforme am seen liggéey di liggéey wala du du leen ko defal loolu ñun ñooy seet xool yéen a ngi dégg beneen bi les victimes des aadamoo chaque quinze jours lay am képp ku aadamoo musa teg toroxal la dama lay jël soo bëggee wax nga wax soo bëggul nga indil ma ay preuve ma teg ko expliquer nga wax ma li xew ak nu mu demee beneen bi ci dama leen bëgg a wan ñaar Leuz Adamo moo la tudd Leuz ñaari jigéen wax neen ma ak Saayra bu dee dëgg la ci ñoo katt te Adamo moo leen ko jox waa Leuz lan la da nga am problème yi katt wala ñu vulnérable jigéen ñu ñàkk pexe rek nga mën a kat loolu lâche moo koy def yambar jigéen danga koy doxaan ba mu neex mu yéene la ko nga laal mais aadamoo victime am yëpp katte nga leen te du yow kenn ah. du yow kenn dama bëgg nag ngeen xam ne yéen ñi aadamoo amoon seen victime seen ojo seen film boole leen ak ay jë jigéen góor mu katt leen góor yooyu mën nañoo dem kaso avocat Babacar Cissé maître Babacar Cissé avocat maître Aïssata Sabar ñaari avocat yi ñu ne pare neen pour taxaw bépp jigéen boo xam ne aadamoo moo amoon sa le boole la ak góor mu katt la ñu taxaw la ba nga jot sa droit ñaari avocat yi maître Babacar Cissé mooy avocat gouvernement bi maître Aïssata Sabara mooy avocat bi gën a riche bi dàq xeex ci dëkk bi jigéen la ne neen ñoom pare neen pour taxaw bépp jigéen boo xam ne victime mu aadamoo nga dafa jël sa vidéo menacé la boole laa góor mu katt la boo amee numéro bi da ngay ñëw ñu plaider la gratuitement Sénégal den koy xam nga am sa te su victime yi matee juróom problème mu Interpol lay doon. Adamo dafay am benn problème bu mu am mooy mafia bu link la gouvernement Sénégal mooy mango mànko ak European Union aada day am problème parce que jigéen ñi ñoo doon victime am lu ëpp juróom ci àddina mënoo rëcc Harvey Einstein bu Nollywood mu ngi ca kaso ga Puff Dadeng ca kaso ga diw ak diw ñamoon neen kon juróomi victime bu ñu génnee mu doon cas international aada munta am jàmm ci yéen lay des nag loolu moom mënuma ko du suma doole ndax man katuma katuma amul suma vidéo mais juróom ngeen nangoo génn ni ma dëggee ndeyam ci internet bi ngeen di dëggee ndeyam mu doon cas international rapport la juste maanaam dégg leen ma wax leen lu leer moo tax ma ne Adamo da nga dugg ci koo warta dugg guerre danga koy mën avocat yi pare nañu pour représenter les victimes des Adamo vidéo yi preuve la mu ngi fi te moom moo ubbi ci gémmiñam mu ne moom xam na kocc mooy jox kocc vidéo lépp lu kocc dugal day doon tooñ ci moom parce que suñ xamul kocc moom mi wax ne moo koy jox moom la yéen ñu xam lu waa lay wax ah, te am xel li ma wax bu dee dul la ne leen dul la bu dee dëgg ngeen ne dëgg la moom moo avoué vidéo bi mu ngi ci ñun mu avoué ne mooy jox vidéo kocc kon wane na ne am neen partenariat directement moo ko wax ok léegi bu jigéen ñëwee nekk victime Adamo mu wane taatam preuve am lépp am mu wane na boole woon na ko ku tudd Cheikh Ahmed wala Leuz wala kenn mu kattu ko loolu day dem tribunal bu demee tribunal jigéen bi mun na wax ne ñeenti leen mais kenn la xam benn jigéen ñaari jigéen ñetti jigéen ñeenti jigéen juróom organisation dañuy ñëw ñoom Gabriel kann organisation des femmes et féministes ministre de la justice dafa am pàcc boo xam ne kii Paul la euh, Paul waaye affaire bi nu mu tuddati techno non technopole ma ko yàqal bindal leen ma lan Paul interpol interpol interpol ci boppam mooy bind European Union tribunal européen union fa la Allemagne nekk fa la Italie nekk yëpp duñ bind Allemagne léegi soo leen bindee expliquer leen boole kook ay vidéo yéen ñëpp ngeen jàpp ci liggéey bi dafay doon cas international mën nañ ko jàpp Allemagne tëj ko foofu fu mu mën a nekk maanaam troisième guerre bi maag Adamo fa leen jëm moo tax ma bëgg les victimes de Adamo pour dajale preuve ci loolu man doonatul maag mooma ah. duma ko tudd duma wax ci moom dara amul benn affaire li mën mën na ko data yaay sukk su ko aayaa nangam amul problème saaga du taxee juróomi jigéen képp laa soxla yu aadamoo tooñ ngeen dajaloo ñaari avocat yi gën a mag ci réew mi góor ak jigéen pare neen gratuitement doo fay dara amut facture bi amut lii dara nga dut fay combat bi nag dina jël minimum treize mois maximum soixante douze mois parce que tubaab bi dañu organiser doo ñëw rek wax rek ñu jàpp tëj duy demee noonu du demee noonu minimum treize mois at ak benn weer papier yi jaar fa mu war a jaar ma leen di live di leen ko car ndànk-ndànk ngeen di xam ba mu dem European Union ñooñu dañuy gëstu vérifier te internet loo dugal sa compte boo ko supprimer tubaab bi am neen ci accès ba mu des Apple waaye sa Google say Facebook loo supprimer am nañ ci accès ba mu des Apple képp la ñu amul accès loolu lépp buñ ko génnee nag dafa am procédure bu European Union di dem procédure boobu buñ ca yeggee moom dina xam ne jigéen dafa am doole ci yàlla am doole ci lislaam rawatina ci àddina te internet bullying tubaab du ko fowee parce que day dofloo nit nga jàpp nit di ko ah xool leen kii suma kii suma xarit bi kale nga juboo neen suma nit la hmm. xool leen ko léegi rek am ñaari jabar war a nekk neexal say jabar live bu ne nga dugg di saaga suma yaay rek ba ci àllaaxira ah xarit soxna yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko donc internet bullying is very is very dangerous day dofloo nit tey dégg naa soo ko ma Abba Jada Hawasa ma ne ko gisagoo dara neen dem ba ci kanam donc loolu lu tubaab bi jël au sérieux la luwaa ci noowee benn xale bu jigéen bu doon dem école ñu génnee taatami mu taxaw fippu ci leen ko def loi internet bullying tubaab du ko kafe parce que internet xel lay jàpp dalay lay kon you wanna contribute about what kon dama bëgg yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk victim ci Adamo suma numéro personnel ngeen may woo suma numéro personnel numéro Sénégal la 78 471 57 01 lu leerul duma ci wax lu leerul duma ci wax 78 471 57 01 mooy suma numéro personnel nga ñëw boole ma sa njàmbat lu la naqari woon dina la neex soo foogee ne kenn mënu ci dara loolu ay wax rek la agent ah, bi maa ngi lay jaar maa ngi lay si laa maa ngi lay suivre si sa live je voudrais contribuer par rapport ak xam naa xame woo ma man maa lay <laughs> invité e woon man ak Difa public kon dama bëgg ngeen xam ne affaire bi yépp lu ñu régler la teg ko ci ordre te gis nga bu combat réussir ci ko mel ni Adama ñun nit ñi dem fa dama fi ñëw ay gañe nga ay nanga ah ah ëpp na loolu waxoon naa ko keroog bi muy saaga ma ne ko su paree ci yow yow dootoo songu kenn dama bëgg buñ ci paree ba teg ko benn boor bu ëllëg war a teet bu ëllëg nit waree taxaw wane bajob jàmbur xam ne mën na am conséquence mais pas da nga nekk Europe rek da ngay libre du demee noonu internet nga ko defee internet nga ko defee beneen bi ci des Ndeye Ndiaye Banaya ci victime yi la ngoor ci victime yi la Doudou ay artistes lañu ñooñu bu leen neexoon ñu porte combat bi mais sénégalais naa fex la dañuy ñëw naan non affaire bi fàtte neen ko day yëkkatiwaat coow yëkkatiwul coow ci avocat bi ngay dem bind sa procédure taxaw tribunal ñu def lépp lu ñu war a def Mbathio Ndiaye ci victime yi la mais Sénégal li tax mbir mi mënta dox mooy tey mbaaco du ñëpp du bëgg a waxaat parce que day bëgg ñu fàtte photo mi mais def ko dafay xeex ki war a ñëw suba daanu fi nga daanu war a am doom war a am njaboot war a nekk ci dëkk bi ñooñ ngay fàttal mais yow sa taat génn na ba pare ngóor duudu mbaaco banneya seen bajoog seen kooy génn na ba pare mun leen ci dal waaye mën ngeen a fexe nag dimbale as gor yu mu war a dal ba dootu leen dalati loolooy dimbale nit loolu mooy dimbale doomu aadama beneen bi mooy waxoon naa ko ñi nga xam ne suma ay nit leen ma ne leen ñii dañuy fo fowum taat xam nga fowum taat mooy nga tiim jigéen téye sa bagage yi di kii naan noo damay lese du dugg nangam laay def nangam nangam fuy dugg doo ko yëkk Choco ak Tii moom ay vie la ñu bëgg Adamo bëgg a fay gàcceem ñu def collaboration pour fore forer aada moo foncé trair mafia bi dugg ci famille Choco mais Adamo nit ñi seetaan nañ la mais fàttewuñ de nit ñi dañuy seetaan mais seen xel yi dafa woy élection yi passé wane na Sénégal fu seen xel toll feesal neen stade yi Amadou Ba Amadou Ba bi élection yi wàccee ku ne xam na ne nit ñi jomaay la ñu bëgg nit ñaa ngi lay seetaan mais xam neen ci li ngeen dof te su farata jotee xam neen kuy wax farata ku dul wax farata loolu laa bëgg nga comprendre quoi. kon seen kaf yi ngeen nekkoon caaxaane da nga trahir mafia bi jàll ci famille Soko c'était juste pour ngeen divertise wu nit ñi xaw a fàtte mais pas nga foncé ba pare da am benn jikko bu bon aadamoo gor yëpp dañ koy seetlu mooy que booy yàq doome aadama sa xol bi dafay sedd jullit nag bu demee ba gàcce doomi adama doon mbégteem rek xol bi feebar na war naa seetaat boppam adama sooy wax lu baax sa dangay ngay tayal ñu gaaw génn ci loolu life baa ngi wàcc life baa ngi wàcc waaye sooy yàq nit <laughs> yàq naa fameem mais yàq naa fami da ngay bàkkoo yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñaar duñ gis yàlla yowmal qiyaam kuy dagg mbokk di tas mbokk ak dëkkandoor bu bon lii dafa am solo dafa am solo ñu pause tuuti dem publicité maa ngi leen di wax ne suma miel bi egsi na Amérique mooy bi ngeen di def ci ndërp bi ku leen laal du leen bàyyi miel bi am na Amérique am na Espagne ci mbës am na Sénégal am na gàmbi miel bi lu muy def góor bu ko laalee ci boppi awraam dugal ci jigéen jigéen ji dootul la bàyyi te loo bëgg mu def ko bu ko jigéen laalee ci bu góor dugalee dootul bàyyi danga ca am kayit am ci xaalis lu mu xam wax la fu mu jëm yóbbu la te du am coow dañu pause publicité dañuy publicité kon bëgg naa ngeen jënd ci ndax li tax ma defar ko waxtaan wax dëgg ca la mooy góor ñi katt di dem laa bëgg ñu katt toog ku nekk Mauritanie wooteel senegal ku nekk Europe wooteel si mbës dinaa leen jox numéro yëpp numéro Amérique bi moom maa ko moom man capot bi ku woote man ngay jot 929 867 8643 ma waxaat numéro Amérique bi beneen yoon 929 867 8643 su dee bu gàmb bi 59 ñetti 5 ñaari 5 59 ñetti 5 ñaari 5 su dee bu senegal Sénégal 77 285 38 38 77 285 38 38 koo xam ne nii numéro bi daf la rëcc da ngay dem YouTube nga seetaanaat live bi di nga ko gis bu bu bu Espagne bi mbës ngay jot mbës mooy plus 34 603 14 16 bu leen fàtte nag xolu Matar Samb ko ci géejawaay cité gàddaay arrêt 221 dem dikk lu mbës sol moo ko ko jox du man mbës lay solal pas man nangeen ko jàppale jàpp ci business bi bu baax a baax a baax hum waaw ma ne victime day aadamoo yéen a ngi ñëw de ñëw leen bu kenn bu kenn bàyyi ñëw leen seen tur su ngeen bëggee mu feeñ mu feeñ su ngeen bëggut du feeñ du feeñ ngeen nekk ci ñu def affaire bi liggéey ko ba mu mat eh, su publicité bi jeexee nag yéen ñi nekk France Espagne ngeen di woote wala Sénégal yéen ñi nekk Europe yëpp Espagne ngeen di woote kii na ma ku nekk France nag Turquie Turquie Europe la nekk France Europe la nekk Suisse Europe la nekk numéro Europe laa leen jox Espagne la ne fa ngeen di woote yéen ñi nekk Afrique Sénégal ñi nekk Gambie Gambie ñi nekk Amérique Capo la ñuy woo bu ngeen ma jotut message leen ma na ma miel laa bëgg ñi nga xam ne dañoo am problème mu koddal man mooy suma liggéey loolu lay jaay su tuutee ma guddal ma réyal su gàttee ma guddal su nooyee ma dëgëral nii rek la deme numéro Gambie bi 59 ñetti 5 ñaari 5 59 ñetti 5 ñaari 5 59 lu des yëpp 5 loolu la kon leneen li mooy le 15 incha allah ngeen ñëw. ñu ñëw ci première victime de Adamo kan la yàq àddunaam nan la ko yàqee nan la ko defee loolu dafay am solo les trente incha allah ñu ñëwaat ci victim de Adamo su ma diggante kalifon su ma tooñee baal naa ko su ma ko tooñee na ma baal ci àddina su passé live bi dootuma wax turam kooku dem na dem na bokkul ci su ma ko toppee dinaa ko rey suma ma digganteeg Adamo combat mosu cee te du ci musa nekk ba àdduna tukki mais askan wi lay jublu ci yéen délégué Amar on the 15 every two weeks every on the 15 of each month and the 30th of each month we gonna bring the victims of Adamo the traumas they go through and the consequences they face in their life the disaster it makes to their life loolu la ñuy waxtaanee because we need to help people with this internet bullying our people never takes it serious ñoom dañuy jàpp ne rek ñu ngi Europe rek kuñ wane sa taat jeex na duy demee noonu lu waa internet àdduna yëpp la kon loolu laa bëgg ngeen xam people all over the world bëgg naa ngeen ñëw ngeen taxaw ci loolu kii daf ma yónnee mu ne seen porno sax Adamo am na fa compte boo xam ne am na quatre cent soixante onze subscribers ci site porno yi pour muy dugal vidéo taati jàmbur yi te loolu su ngeen suñ suñ mënee combat boobu dafay dem ba ci ñiy yónnee Adamo vidéo yi sax dañuy weeru ñiy yónnee Adamo vidéo yi dañuy weeru dañuy xam kan mooy kan te su lii amee dañuy ragale yónnee vidéo faaw ñun ñu xeex xeex bi guerre guerre bi ñoo ko mën a xeex ñoo ko mën a gañe man comme président tous les tiktokers et tiktokeuses de Sénégal et Gambie euh, initiative yu rafet yi laa bëgg a teg suma gouvernement franchement mu nekk gouvernement tiktok boo xam ne ku mën a ambiance nga ñëw ñu ambiance ku mën a kaf-kaf ku mën a jaay-jaay mais du amati katal sa ndey sa yaay du amati wane duusu yaay jàmbur ah duusu yaay jàmbur boo ko wane war nga xam ne sa yaay nga wane sa duusu baay waaw yëpp dafa a jeex su politique jotee ñu politique ku ne faral keneen mu neex loolu la rek ah. Hmm? yéen ñi wane duus yaay jàmbur yi bàyyi leen bu seen yaay itam dañuy dem duus yooyu rafetul. Hmm? yéen ñuy saaga ndey jàmbur yi tudd leen seen lëfi yaay ci ngeen jóge du problème mais dafa am yoo xam ne rafetul quand même. Hmm? yëpp dama koy bañ ci suma gouvernement en tant que niveau président de tiktokers du Sénégal et de Sénégambie bi damay bañ loolu li ma bëgg daal ambiance. kafre nit ñi divertissé wu jëkkër ñi mënuñ ñoo sonnal jabar yi sonnal ñu njaboot gi jooy liggéey bi stress ñu dëkk bi métti ñu ñëw tiktok di saagawante ko uñu sutura baaxul bëgguma ko dama koy bañ damay bañ loolu aada yow euh, constitutionnellement dama bëgg sa live boobu noonu nga ciy dimbale ay jigéen ñuy jaay en tant que président loolu laa la sant mënoo ko dinaa wax suma peuple bi ñu désabonné ci yow ñoom ñëpp ger bi ma la naral nag loolu maag yow la léeta la constitutionnellement ci loi mais dama bëgg daal boo laay fee ñëw ba nit ñëw au moins nga dugal ñetti jigéen ñu publicité ña benn góor ñetti jigéen benn góor parce que jigéen ñi ay ay borom jom leen dañoo nangoo liggéey lii laa la sant lii laa bëgg nga def nii laa bëgg nga defee ko soo ko defee nii am jàmm hmm? su boobaa su ma leen noq ndànk laa leen noq d'accord kon délégué Amar wax leen ko ne na bàyyi di tas kër Cheikh Amar amalu ko benn njëriñ mbokk yi kaa bi jeex na agsi naa si cooki fee soko maa ngi lay masawu danga daan taf ndey nit ñi di ubbi seen data yi ñu taf sa yaay ubbi dataam bi rek man mii saaga nga suma ndey ñaari yoon ñetti yoon te man mu musuma saaga sa yaay gis nga ni nga fonkee sa yaay jooju ne jànkati alxuraan yow xamoo suñu yaay luñ mën li nga def ndey nit ñi rek leen def sa bos yaayu rox bi mu génnee àdduna ya xam seddagut matul quarante jours nga ko taf di saaga ndeyam laa fay sa bor ku ñu fay nga ku ñu fay sa bor nga mer nag la nga leblee baaxul man masawu naa la mais daf la mooy parce que yaa daan taf data ndey nit ñi ñu taf sa data ndey rek mu jeex looy mer looy jooy sa data bi yaay bi ni ñu si jógee la nit ñi jógee seen data yaay rek bul tuddati data kay sa yaay am na data tuddal data bi te bàyyi nit ñi ni ngay taggee sa yaay ndafa mokkal yaasin ñun suñu yaay alxuraan la ñu mokkal ak fiq te duñ ko ndamoo ndamoo sa ndey dëgg ak bëgg sa ndey du saaga ndey nit ñi mooy fexe am melokaan boo xam ne sa yaay bu ñëwee gis la dalay nawloo li mooy lii mooy fonk sa ndey waaye nëbbu sa yaay suñ ne moo bëgg alxuraan nga mayee fleur kontaan ba pare di saaga ndey nit ñi bëggoo sa yaay yonentu daf noonu di saaga ndey nit ñi bëgg naa la lool fonk naa la mais àndi caga la rek hmm? ñu def ko ànd caga bu soft seen allié yi ngeen di nekk ak ñu prank ak ñu nangam nekkuma ci duma yéen du ngeen man man damay jaay di liggéey bëgguma leen xarit bëgguma leen àndandoor bëgguma seen dimbal suma geer mën naa ko mat naa tudd mat naa tabaski waaye nag yow man dama am cofeel ci yow cofeel gi nag du sa jikko mbëggeel yàllaa koy dugal ci xool soo ko maa la bëgg bëgguma la ngir danga baax bëgguma la ngir danga bon duma sa xarit doo am ci man preuve sàkkuwuma sa ndimbal duma xiif ba ne la may ma ma lekk duma laaj ci masala dina na la lu yàlla wax ndax maa la ëppale ñaar yëpp waaye gis nga biñ tafee sa ndey ak sa nijaay ni nga meree sa xel mi dem na ba tey yaa ngi toog ne ah ba jàdda ah, sa metti na ma maa ngi lay masawu waaye daf la mooy daf la mooy ndax ndey ndey képp la koo fi saaga ndeyam ñu saaga sa ndey léegi nag li nga def rek leen la fay amul mer amul naqarlu te bu ko defati si sa yaay biñ ko saagaa uññi suturaam nim la méttee nga waroon a xalaatee ne yaay nit ñi tam nii lay méttee ni sa yaay duggee seeda la bi nga doon teppi data ndey nit ñi noonu la waroon na ñëw na la so soko am naa data te ci nga génn bàyyil data yaay jàmbur te tudd suma data lii mooy yaay ju honnête waaye toog fi nga fi nga toog sa doom di saaga nday nit ñi nga toog ba bis bu la neex ñu lay saaga nga ñëw di seedeel sa doom safut kenn kenn safut yow yaayu soko yow laay wax safut kenn kenn kenn kenn kenn déglu. Ahmed Cissé yow xam nga ni yàlla xam na ni li ngay waxal sa nawle bii di Khalifa Sall dara du ci dëgg dangay magum saay-saay di mbagum ñu blanc bu ñu waxee nga naa maan soko dama laa bëgg yaay sama fans ay ay duuli kese di ma jéem a dóor bàyyil Khalifa Sall mi ngay jaxaseeg àddina bi di ko jaxase di ko diaboliser yow booy xulóom nit danga ciy boole di fen ak di duul ak di nar Khalifa mënul fenn mënul duul mënul fabriquer xam naa ko nit ku baax la bàyyil Kaliphone Sall mi ngay duulal yow ay duuli prate Kaliphone Sall Ahmed Cissé mii nee naa la ba tàyyi kii bu ko tontu kii kenn nawloowu ko dafa fenee Gàmbi ba waa Gàmbi jàpp ko toj cootu ndee mu daw jàll senegal mu yegg senegal waa kër Mame Baye Niass jàpp ko noq ko ba mu duul futti ko def ko taatu neen Ahmed Cissé mii dara safu ko doomu xaraam la xam nga ku jàng diine ba noppi doon kilifa diine dem ba torox xool. am na tey sokko bi ngay ñëw di saaga suma yaay ji ci àllaaxira mënoon ngaa tudd sa data ndey bi rek data la am te ci dafa onk nga génn mënoon nga ko tudd nga bam yow sa yaay ngi dund tey mën nga koo nuyu mën nga wax ak moom mën nga koo jox àddee man awma ko suma yaay dafa génn àddina nga ñëw di tudd suma yaay ci biir bàmmeelam loolu rek leen la fay kuñ fi fay sa bor nga mer la nga leble moo baaxutoon yéen tiktokeur tiktokeurs si bugguma ci xarit awma ko ci man suma intérêt moo ma fi indi ñëw wax ci katt mi nit ñi seetaan ma jaay àndalaa encaisse toppatoo ji sumay waajur xaritoowuma keroog dama la doon kokkaleen dama la doon kookali rek parce que bugguma nga dugg ci guerre ma ne la yaay suma sëriñ mais foo koy doonee so ko ci alxuraan wala ci sunna say arab baaxut man xam naa yàlla ci jëmmam ji xàmmee ko ci tour yeeg melo yi àggagoo foofu mais kookali la rek ak am pion bu ma la yónni pa yónni parce que suma objectif laay bañ ko ko dévier damaa mën a xeex mais yow di nga ma taf saaga ma ndey ma gis sa ànd ak ma mami Cobras koo mës a àndal taf nga cottu ndeyam saaga ko man ma ne damay nekk yow xarit on est de quoi pour la foo may yóbbu yow bu ma amoon projet di si xalaat amoo xeli xalaat ak man projet mënoo ko mëtewoo ko parce que hmm, bugguma wax lu ma leerul mënoo ko man dama lissu du sa xarit mënuñoo nekk xarit àdduna ñaari tànk la ndeyjoor mooy xam-xam càmmooñ mooy wërsëg du ma ma su ma manqué dépense doo ma may ndax ëppale woo ma bu ma réeree ci masalaam diine du yow laa koy laaj kon ànd ak yow fu may jëriñ fan la may yóbbu ba pare seen muusadi gi ngeen muusadi mooy wut vie man wut naa vie ba mille personnes ñëw mag publicité fu mu nekk am naa sept message Amérique ak ci kii bi maa ngi jaay mais vii vie au nom de quoi lan ngeen ciy gagné parce que da ngeen feebar da ngeen vide amu leen vie amu leen métier amu leen xaalis xamu leen teraanga xaalis. vidde boobu ngeen vidde vie yi moo leen di mottali ci ngeen di diseeru ci ngeen di mën a am vie yëg importance parce que da ngeen vidde mais man damay wiir rek jàkkaarloog jëmmi yàlla ji di waxtaan ak moom su paree maa ngi xool ñaata nit a yónnee seen xaalis livré gu ma leen di nekk out of pressure war a xool daara ja ndax xale yaa ngi jàng mais amu leen vie te gis nga réseaux sociaux dafay damu xaatir ci yàlla xam nga lan mooy xaatir xalaat bi ngay xalaat yàlla réseaux sociaux da koy dagg xoolal tey su ma defee annonce déglu leen bu baax ne suba laa war a wax ku nekk sa xel mi da ciy nekk hé seex bi suba 19h 19h di diir boobu yëpp dagg na la ci xalaat yàlla moment bi may waaj 19h man maa ngi ci laa ilaaha illallaah maa ngi ci leneen su jotee ma taal ko wax ko jeex ko tëj na ma ba ko dem suma yoon parce que xam yàlla gi moo ma dimbalee mais yéen da ngeen dem ba seen xaatir dog tiktok mooy seen àdduna vie mooy seen àddina su jaree teg seen famille saaga ndey ngeen teg famille juste pour vie nit ñi fonctionné wuñ noonu duy demee noonu seen kalaan yi na ngeen ma ci génnee ragaluma seen saaga ragaluma seen xast ndax xasit mënta xaste te ku ma ci jugal benn fan ñaari fan lekk la seen yooyu ngeen nekkee audio wanteeg te yu ñàkk faydo yooyu nekkuma ci seen dossier noonu laa koy classé ci askan bi laay jublu ak jaay suma njaay mi toppatoo suma daraja toppatoo sumay waajur yéen a ngi toog ci internet bi waa man defal naa suma sër lii suma yaay mais bi ngeen di juddu seen séri yi di leen laab ngeen di puub seen kaw da ko mënoon a fay. mbokk ku ko defal taxaw ci pénc wax ko yàq nga ko te mbokk loo ko defal wax ko ci pénc rek safut gis nga jëf ju ànd ak kàddu safut benn góor may la parce que dañoo bokk toog ci internet di ko tudd maa defal lii suma yaay maa ko indi fii mais sa yaay Europe nga ko indi dafa tax mu tekki dafa tax mu dem àjjana mais sa yaay nga génn ci bajoom bi juddu <laughs> donc indi sa Europe indi Europe sa yaay après indi nga sa yaay Europe et après nga dëgg mooy fexe am melokaan boo xam ne ku woo sa yaay ne ko sa doom a ngi du rus du rëccu lum la juree loolooy teraanga mais indi ko Europe après nit ñëw na Europe dee di nit ñëw na Europe dee indi nga Europe et après seen yëfi caaxaan yu ñàkk fayde yi na ngeen ko def te génnee ma ci bokkuñu fu ñuy boxee duma yénta du ngeen man seen kalaan yi bokk ma ci duma tiktokeur dama cee am intérêt nekk ci bis bu jeexee ma won ko ginnaaw Amérique gii ma nekk damay dem école université jàngi am suma diplôme suma bët maa ngi ko teg nekk conseil présidentiel bu Gambie ak bu Sénégal ndax am naa maqaama bi am naa dip aw ma diplôme bi diplôme bi laay wër loolooy suma vie bi ma nekkee et playboy di fo nekkuma ci relation aw ma jabar parce que munoo nekk fokkat ba paree ne danga am jabar te da nga koo du dëgg dama jël jabar tegee nele parce que parewuma mentalement parewuma physiquement bëgg naa leneen te boo demee ba am jabar da ko war a respecté xam looy wax xam noo koy waxee ndax mbokkam day dugg famem dañuy dugg goro yi dañuy dugg loo defati du doon Cheikh Ahmed waaye den naan goro diw donc bis bu ma paree nag ba casé pour toog yii ngeen nekk duma ci nekk bokkuñ objectif d'ici quatre ans bëgg naa doon master degree holder téye suma master nii loolooy suma objectif yàlla dina ko defam du ko def moo xam lu mu def baax na man yàlla sequma ak moom lu may alhamdulillah waaye ñaata at ngeen nekk Europe fexewu leen xam dara ci àddina nu ñuy saaga nu ñuy xase nu ñuy wanee taat ak ut relation ban kilifa moo lay mosal man dama bëgg a bokk ci ñuy mosle mais bëgguma doon ku ñuy mosal li ngeen nekk Europe yépp su ngeen doon jàng même saison bu nekk ngeen jàng dara sax su boobaa am ngeen diplôme mais bis en fait dugg Europe dugg Amérique second chance la ci life maanaam deuxième chance la ci àdduna bu ne mais xam-xam mooy njiit fexeel tey ba ëllëg bu ñu la tegee na soo ko am nga 19 ans Espagne nga ne leen am naa diplôme nangam en tant que sénégalais kenn du la xeeb kenn du la yëpp. mais amoo kër gu baax Sénégal amoo kër Europe amoo xam-xam amoo diplôme mais pour la au nom de quoi Amérique gii ma ne man Cheikh Ahmed Cissé hmm? wax naa ko ma Matar Gueye de ma ne ko bis bu may ñëwaat I will be a better version of myself dinaa indi suma diplôme suma kër lay wàcc dama doon luwee dakaar balaa may ñëw dinaa fa pare suma kër ba mu pare ànd ak suma njaboot wàcc ci dëkk bi nekk beneen Cheikh Ahmed Cissé boo xam ne génnutoon Sénégal ci noonu parce que àdduna lu yàlla dogal rek lu yàlla dogal ci yow chance la mais munoo nekk Sénégal neen joxe kàppoot ci jumaa yi alxuraan lii taaxuraan la ba ñëwaat Amérique nga ne doo defar sa dund mënta nekk intelligence bi ci yow ngay doxal am Pastef am leneen loo dox d'ici cinq ans rek adduna day changé ñun cinq ans ci ginnaaw meluñu woon nii mais buggu leen seen adduna dara yéen ñépp ma mag ba mu des Adamo kali mag na ma katara soo ko mën nga ma nijaay yéen ñépp mag ngeen jigéen ña war nañoo mën a sëy ba war a mën a pës toog rek data ndey katt ndey kaa xew neen ci wax xew bu am ngeen buróorlu juste pour am vie mais bu ngeen amee vie après quoi question bii nga war a laajte kaa leen ma wax leen benn histoire boo xam ne vrai bi may doxaan dëgg iPhone 13 Pro Max dafa génn ma jënd ko jëndee ko Nigéria indi ko Sénégal ku ne nii ma jox ma suma iPhone bi pour doser ma dox ba teseeg benn post Facebook mu teg tool teg iPhone teg pack ne benn bu ne njëgi iPhone mën na ko Mouhamad Nasir Cissé doomu imam Hassan Cissé bu Medina Baye laa jaay suma iPhone bi ci laa jënd àndala buri bii àndala buri bii tey def na ma tey ma am teraanga am sutura kenn gàdduwuma au nom de à cause de àndala buri parce que benn post Facebook rek laa gis mu defar suma àdduna ma ne tey téye lu mel ni iPhone bëgguma ci lu may jigéen ñi gis ma ma gën a mën a doxaan allo nga ne ma ne rek laa ci mën a wax te Nokia 3310 mën na ko poste boobu moo changé suma vie maa ngi toog ak Mouhamad Nazir Cissé ma ne ko kay ma jaay suma suma iPhone bi ma jaay ko ko doomu imam Hassan Cissé laa jaay suma iPhone jënd benn carton àndalaa buri ñëw marché Tilène ku ma leer na am nga place xam nga ma ne la am naa garab boo xam ne soo ko naanee nangam nangam dama lay may ma mayee cinquante yëpp marché Tilène ba pare toog cheikh bi ana garab gi ah damaa daanu xanaa nga jox ma njëgi ñaar ñoom ñëpp ku ne jox ma njëgi ñaar ma duggaat avion dem jëndi noonu la àndalaa buri màggee ba su may def commande léegi ay millions lay jaay benn post Facebook moo changé suma àddina benn posture waaye léegi yéen nag jotee ngeen ak Cheikh Ahmed wax ngeen ko xuloo ngeen moom mu ngi ci àndalaa buri mu ngi amee daara alxuraanam mu ngi nekk ci yeneen vibes kilifa yi leen di fay di leen waxloo ay xaritam leen te ñemewuñ ko waxloo xam na leen léegi Cheikh Ahmed bi yéen mun leen cee jàng dara su ngeen paree waxtaan waa live bi jekku nañu neen def li nen wax la ñu am vie man damay wut vie yi ñu seetaan ma pour suma message jàll benn post Facebook moo changé suma dund ci Andala Boury lu gor di am ci Andala rek am naa ko yóbbu naa ay niti nit mag yóbbu niti nit Fass Cheikhou yi wàccee paa bi dépense jënd ci kër takk ci jabar may ci géwél yi hmm, kii ci xam nga dem ci vacances def ci lu ma saf ci àndalaa buri te ba tey maa ngi àndalaa te ci lii fan yu néew bëgg naa mu dugg Amazon ba ku tàppe àndalaa ci tubaab bi ma jaay la te duma la tudd te ci benn carton laa njëkkee benn carton mais bi ma ñëwee jaayuma damaa may borom xaalis yi parce que borom xaalisi businessman day toog lu bari fa muy toog kilim ba day tàkk diwlin lay lekk bu wàccee day nelaw kooku mënta ko dal ma may leen placé leen biñ ko bëggaatee mënuñ koo am ku ne jox ma ñaar ñii juróom ma dajale xaalis si jënd jaay leen jaayaat la ma leen mayoon ñëw te ba tey ku ma xam-xam ne ànd laa buri dama lay may yéen ñiy jënd nit day jënd ànd sama may la doy waar du may publicité la parce que client boo jàpp dootu rëcc àndalaa boobu teral naa ci géwél teral ci buur teral ci bàddoola faj ci gàcce faj ci naqar ziyaare ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam ziyaare si Seexu Tijaani radiyallahu anhu ziyaare si Serigne Touba ziyaare ci Maodo fu ne ma taxaw fa ñaan yàlla lenn rek laa ko ñaan yàlla nag ma may dëgg dëgg mbëggeelu yonantu sallallahu alayhi wa sallam doy dama ci yàlla man lu yàlla am na jël na ma may rek ma bëgg yonantu gis nga benn postiru Facebook bu changé suma dund Adamo coow lii war naa changé sa dund war naa changé sa dund soko biñ tafee sa ndey ni mu la naqare preuve bu ne nga indi soo daan taf ndey nit ñi noonu lay métti su ma yaay ñetti doom la am imaginel rak su ma rak romb la defuñ la dara nga saaga yaayam bi ci àllaxira dina ko neex àq yooyu bu dajaloo nag dañuy teg sa bajo yaay bi ci marché bi rek ubbi ko laal wiis bale après tëjaalaat ko bajoom bàyyi ko mu toog yarax jàng sóoratu na moo xam nekkuma seen ànd yi nekkuma seen kala doxuma ci waxuma ci suma yoon nekku ci euh, sëriñ <coughs> Bada dégg naa la yow suma xeex ak yow jëf la di nga toog sa live ne Cheikh Ahmed Cissé baal ma billaahi wal kitaabi duma waatee caaxaan sëriñ Bada su ma wax ak yow du wax jëf la te dinga toog sa live jéggalu su la koy rek ko kañ la fan la naka la xaw ma mais di nga taal sa live kenn du la forcer nga ne Cheikh Ahmed ci sa baal ma taf nga ma taf mbës saaga wax lu la neex li nga bëgg doo ko am te li ma bëgg dinaa ko am ci yow yéen ñëpp yéen a ngi dégg bada mooy kii taal live am ne Cheikh Ahmed te li bëgg ci man du ko am te li ma bëgg ci moom dinaa ko am avertissement la ndax xam na ne nettalikat yaa ngi fi te dinañ la ko nettali nga yëg su paasee loolu nag maa ngi lay sant bu baax sëñ Bada di la gërëm nit ku baax nga ku baax nga kon nante bi pare na su may fenkat yéen a ngi fi billaahi wallaahi tallaahi du wax ma wax duma ko laayfal dootuma ko tudd te dina toog laayfam na ma baal maaq li bëgg ci man du ko am te man li ma bëgg ci moom dinaa ko am ñeneen ñi ci des nag baal naa leen loo leen wax ak loo leen waxagut man Cheikh Ahmed baal naa leen eh, <laughs> kii kii dibi dégg naa la de daf fekk rek ne dang di suma moromi yaay duma tontuwante ak suma moromi yaay maa ngi lay jéggalu loo ma wax rek baal naa la may jéggalu dibi dibi <laughs> maa ngi lay jéggalu man duma tontuwante ak suma moromi yaay bul gis bee jaaw yi waaye xale la ma feree yàggul hmm. ma ne duma la tontu ma ne duma la tontu loolu laa wax doo wax ma wax hmm. lépp ma ne lépp loo waaj wax baal naa la hmm. <laughs> loolu la daal ngeen baal ma ko ma commencé jël demande yi su ko defee live bi jeex na lii rek la ñu tasaaroo ba beneen délégué Amar loolooy sa wàll ci xew mi Viviane Doro Gueye loolu la Mia Guissé dégg nga ñu résumé cas bi euh, Adamo loolooy sa wàll ci xew li Soko loolu rek la euh, loolu rek la li ci des daal ngeen baal ma xam ne man muumin laa yàlla topp ma dara ba non ñoo xam ne dama koy bañ dama ko bëgg <laughs> duma ko bëgg daal waaw yow jaawale woo di nga meloon nga mel na we jaawale woo ma wayaay nga mel noonu nga mel na we jaawale woo ma génn génn ca ca génn génn Cheikh Tidiane Cissé duggaat leen ci commentaire yi may gis daaw yuuxul yaa ngi bégal ñi fi nekk <laughs> bu leen ma jaawalee te bu ngeen di tendance ak a xuloog nit óoruma bàyyi leen ma ma toog jaay suma àndala ndeysaan dëgg dëgg duñ la jaawale Cheikh Tidiane lu tax duñ ma jaawale wax leen yaay Xadi indil Baye Alaaji Malick waa nit yàlla ak sëriñ benn leen <laughs> ak sëriñ du benn na leen yaay xadi soxna mooy suma yaay ñu dégg tara nag tara wax leen jël dafa bokkul ak sëriñ na leen yaay xadi soxna mooy suma yaay ñu dégg ne leen Alaaji Malick mooy suma baay ndax bëgg nga ma paap ma ndax bëgg nga ma ak a jongo ma <laughs> ah nga ne càggi da daggi da giin giin yëkkatil gitaar gi na ànd ak piano bi teg teg teg teg teg teg gëdëdëdëdëdë duñ <laughs> ana Malick Fanta Ndiaye waa yuuxu waatal jëri ma ca waalo ba may dégg nan tey dañ koo bëgg aha beneen yoon pap yuuxul beneen yoon ndeysaan càmmi ñu mbombe siise woo leen ma aada wi fi aada mongol ndeysaan déglul am nañ ma bu ngeen di xulooti dimbali leen ma rek bu leen may jaawale ma ci man damay ñëw waxtaan ak jeeg ji coaché leen si néegi say jaay àndalaa fay suma live dem baleen ma yéen ñi ma doon partagé live bu ma kenn partagé si live pare naa ci pare naa ci ku ma partagé ñaari yoon dama lay bloqué nettalikat yi may leen ma loolu bu ma kenn partagé ti ku mu nekk rek na wax ah kenn bu ma jaawale borom fetali ñaari ngémmeñ dañ ci tooñ di ci fay ci tooñ ci tooñ ci tooñ ci tooñ pour commentaire 6 euros la yéen ñi daggoon seen billet commentaire leen may xool. boroom xam-xam bi lay woo boroom pexe bi. tooñ ma ma ñaaf sala <laughs> ndeysaan ku fayul du commentaire Adja commentaire a lu mu la neexee. Malick Fanta Ndiaye suma maam la woon dem xare waalo dee doo ma i nitu yàlla ak sëriñ du benn rox commentaire lu la saf yaa dagg si óor <laughs> billaay moo ma jur na ko yàlla yërëm Pape li ma yàlla jox kan ak kan laa ko jox ku ma séqal xam na sa ngoon yaa yowin gore ndeysaan rox rek la ñuy topp mais Rox dégg naa ne nag yónnee naa la benn vidéo <laughs> ndeysaan dëgg dëgg dëgg cak doo doom doom e eh, waay maa ngi nii sëriñu nante yi dégg leen pam mu ne ndaanaan la mu ne doomi garme neexa soppi wàlliwu ndeysaan wengal gémmiñ ay eh, waay wayaay ndeysaan di ci fayu dang ci tooñ di ci fayu dang ci tooñ di ci fayu dang ci tooñ di ci fayu dang ci tooñ di ci fayu dang ci tooñ di ci fayu dang ci tooñ ndeysaan dañ ci tooñ ñu ci fayu dañ ci tooñ te di ci fayu dañ ci tooñ di ci fayu dañ ci tooñ waay la la la Milan Milan woo naa la waale nag dafa mel ni mën na wéy de maa ngi nii Chéri F Coulibaly ba ca UK <laughs> ooyaay suma jabari mag la Malick maa ngi nii waal woo ma ndànk waaye yoo tamit nag faramaare bi dama leen noq na. jag jag jag jag jag jag jag du dëkk ma ne ma ne dafa am suma dafa bu ma réer waay Mbombe Cissé la tudd mane ne ku gis Mbombe Cissé na leen ko maa ngi koy laaj ca waay ma ubbi commentaire yi ngeen zolo na benn une minute ma coupé live bi damay waale rek dem zolo na leen tuuti Cheikh seet si na ma tey seet si nañu tey Cissé waaw waaw Cheikh Ahmed seet si na ma tey seet si nañu tey borom ñaari galon yu célibataire la waaye yow tamit c'est man suma live li ci métti mi da ngay ñëw di live ma tëj la doo commentaire nga toog rek di tappate nag di xool mi nga mu ubbee commentaire da ngeen di zaalaale déjà fii la kay yéen ñi defoon commande su ma bagage te livré wu leen baal leen ma woo leen ma waay ah ma defal leen commande yi ma defal leen ma livré leen seen commande yi jërë ngeen jëf kontaan naa ci yéen maa ngi coupé live bu subaa nag ci compte nandite bi la waaw ñu live fee foofu tijji neen suma compte bi tey mais mbës daf di suma nit baax ci man lool doon taalibe xam ngeen ne ku sa sëriñ laaj sa conte nga jox ko ko John Mendy Gambia is my brother yéen ñëpp yéen a ngi wax seen yoon nekku ci man la neex ma jël photo maak moom ñoo ko sekk yëgut ko xamu ci dara yoonam nekku ci maa ngi koy baalu di ko jéggalu di wane ne dama ko sañ ci moom ndax su fekkee fu ñu may reyee moom daf may jëlal défense su ma fekkee fuñ ko reyee day jël défense yéen ñi nga xam ne ne yéen a ngi ciy wax te du seen picture nangul naa leen seen choix lu leen neex wax leen waaye awma explanation pour yéen my only explanation is for John alone bu subaa ci conte naan tey la ñuy dem mbës daf di taalibe sëriñam laaj ko compte mu dégg ndigal jox ma conte bi et c'est tout ah, jeex na te balaa mbës sax ñu bëri suma leen laajoon seen compte ñu jox ma ko donc pourquoi pas sa sëriñ laaj la compte nga jox ko ko bu subaa xaar leen ma ci roog suba teel ñu def briefing hmm, léegi ci rox roxu laay jaar ngeen may benn bennoo papa naa mama naay jokkale war nañoo wax nag ci kaaw bato bi ak engrais bi dafa mel ni ñor na nit ñi xam naa ci lu bari war nañoo wax ci kaaw Zador Zador france la Zador rek laa wax Zador Zador laa wax français la Zador mooy bëgg naa la waaw war nañoo wax ci kaaw Zador ak bato engrais bi trois milliards yi dafa war a leer parce que mbiru askan wi la waaw suñu waxee ci Zador wax ci ZM loolu dafay dafay dafay am solo foog ma ñëw leeral lan moo ci ak lu ci amut waaw fileeg deux semaines incha allah ñu wax ci ZM wala Zador wax ci bato beeg engrais bi ak beneen bakkan boo xam ne dafa faatu ci ay wax ak yooyu kan la ak lan moo ko rey hmm, war nañ ca wax kon ñu résumé cas yi tey bi lan la woon nante yi yéen ñi rëccale résumé bi mooy en tant que président des tiktokers Sénégal et Séné et Gambie Adamo dama ko obligé live fam bi daf ci war a jël ay jigéen ñuy jaay ndax jigéen ñi dañoo soxla ndimbal ak visibilité beneen ba ca tegu mooy artistes yi ànd ak moom ak homme d'affaires yi dama bëgg ñu tànn askan wi wala aadamoo ñoom ñooy xool bu dee Adamo la ñu tànn ci kaw askan bi ma dugg seen gàdd dëgg seen ndey benn par benn ñetteel ba mooy victime des Adamo chaque quinze jours day am ñi Adamo victimisé woon ñaari avocat maître Aïssata Sabara ak maître Babacar Cissé pare neen pour nekk seen avocat gratuitement beneen ba ca des Mia Guissé dama signalé ci farba mais jëw ma ci farba te yow xam nga man xam naa nit ñi xam ne soo ma defee ma teg carte gi ci kaw taabal lu tax ñu weddi tuuma la ñu neen weddi bu far ba nga taxaw ci àddina ne du dëgg kon fi ma la tëmbal dugg nga suma garde duñ may tiñal ndax balaa may wax damay xam ba yore preuve li ngay musique neex na yàlla na la yàlla lafal cat waaye fullaak fayda bi nga amoon bi ngay sëy am ko léegi góor ñi ko tëjool boo tijjee mu nga wax sa xarit mu wax xaritam sa vie yi bëri na dem na ba 73 million mais xam ne ne montor yi verre yi chirurgie bi oto yi ak yeneen ya ca des xam neen fa muy jógee du musique sénégalais rek musique sénégalais fayul xam neen bu baax lu ñuy wax mais bàyyi ñu suñ jàmm ñu bàyyi la sa jàmm doo woon suma cible sa baat bës romb na mais boo ma bëggee dinaa dugg sa garde te xale nga jigéen nga man dama laa war a jàppale mais waruma laa xeex beneen bi mooy Euh, délégué Amar tas na kër Cheikh Amar ndax su Soukeyna Amar seeru Cheikh Amar ojoom yaa ngi ci dëkk bi di tasaaroo délégué moo ko def euh, buuba Seck buuba safaru Cheikh Amar yëfi doomaraam yi mu nekkee kër Cheikh Amar délégué mooy dooleem moo génne audio mari Amar ya moo ne Marie Amar lesbienne la moo waree ne Marie Amar sëyatul moo tuumaal jabaru Cheikh Amar ne biiral la ñëwee ça veut dire que kon Cheikh Amar biiralkat la wala day njaalo te kilifa la sa xarit la waroo ko wax lu te kilifa la lu baax rek la nekkee ci réew mi te dafa feebar. beneen résumé bi mooy Viviane Ndour nit ku baax la musicien la xamal xamaluñ ko lu bon mais digganteem ak Adamo nag xam ne ni mu uufee doomam Zeyna ak filip noonu la nit ñi seen bajo doom yi nekkee ci biti tey yaay la waru ànd ci loolu waruta def loolu Doro Gueye nag mi ngeen di saagaloo. di di wax ne moo leen di saagaloo yónniwut leen tuddut leen te tudd bi ngeen ko tudd ci cas bi tax na ma jot ay dossier ndax Sénégal fii la homme d'affaires benn setu ci ki la neex ak nga xaritoo rek a waaye homme d'affaires dëgg da ngay jàll ci intérêt nit ñi ak doq nit ñi dem fa bëgg dem kenn setu ci homme d'affaires yépp nag laa wax amul exception man nag suma xarit mën naa koo défendre parce que suma xarit la mais homme d'affaires bu sell bu set ci àddina bu xam bu amee Cheikh Amir xam donc jabaru kilifa bi kortu xale bi mu génn àddina deux mille vingt et un délégué xam na ci dara xam na jabaru kilifa gi kan la muy Khadija Sissoko daf doon génn ak benn kilifa jabaru kilifa bi kort ko mu dee beneen jigéen bu nekk ci Virginie di génn ak kilifa gi kilifa gi ubbil ko bitig ndaw si fattaat wërsëgam ba mënatut a am dara dara dara ndaw soosu nag ak délégué Amar duloo neen sax léegi ndaw soo soog woykat bi sax duloo nañ ba woykat bi ñaari at a ngi ne wala at woyu ko donc lii lépp nag li ko def mooy kilifa yi di associé ak ay doomaraam ak di tudd kilifa yi ci lu ngeen warta tudd bu ma ñëwaatee bu ma ñëwaatee bu ngeen nekkatee ci man ba ma ñëwaat amul ndaw seeg jabaru kilifa gi damay jaar ci digg bi kii may wax ne moo nekkoon ak kilifa gi dafa xees nekk Virginie kilifa gi la nekkaloon mu ubbil ko bitig di ko toppatoo message yi laa gis nii ndaw si turam commencé see di ko menacé yóbbu ko sëriñ tëj wërsëgam teg ko feebar ba ay mbokkam den cee jug kon xam naa bu baax li may wax bàyyi leen ma suma jàmm ma baleen suma jàmm su ngeen ma bàyyee damay jaay suma garab nekk ci lu ma nekk taluma leen mais bu ngeen ma yëngalee boutique bi dina yëng boutique bi Mermoz la nekkoon wax nga dëgg yow xam nga kaa bi su ngeen ma yëngalee dëkk bi dina yëngu te ndaw si ban sëriñ lay dem fan lay dugg di génn di liggéey jigéen yi nekk ak jëkkëram ba ci kër gi sax kër jëkkër ji jël na ko am na kër gu baax gum jël ci jëkkër ji ci lay ñëw na ngeen ma ba ma baleen <coughs> délégué Amar lii la woon kon kaa yi tey bi lii la ma résumé ko tënk ko donc en tant que président TikTok am naa ay ordre yu ma jox Adamo te dina ko def dina toppatoo ordre yi dina fonk ordre yi benn par benn maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne bu subaa ngeen dem ci compte Nandi Tey maag Mbeuss fu ngeen fu ngeen abone benn leen kon lii rek la euh, cas yi nag bëri na cas yi bëri na ñu ngi may jox cas ñu ngi may jox cas rek mais ku ma tooñu duma dugg sa garde nekkuma fi pour uñi gori uñi ay sutura wala tas kër ku ma tooñ ma dugg ci yow ku ma tooñu du ma dugg ci yow say nit imbécile bu ñu toogee ci internet bi naan waaw ku laal dooroma laal la ku laal Viviane ku laal Wally ku laal nangam man bu ma ñëwee duma la laal yow kilifa yi la jox doole ba nga may laal ci ñooñu laa jëm ndax bu la xale too tooñee noqal baayam lii rekk la maa ngi leen di sant di leen gërëm euh, di nuyu Mama gi Mama gi Saliou Rufisque suma doom la moom ci nettalikat yi la hmm? di nuyu ñëpp daal suma xariti man daal ko lim juum waaw di di leen nuyu yéen ñëpp daal hmm? nuyu naa ñëpp nuyu naa leen ñëpp nuyu naa leen Rose Mbacke nuyu naa la waaye Mbacke baal la mage suma partenaire de crime Mrs <laughs> Fall Sweden gis naa sa audio afterlife bi laa koo déglu duma ko déglu léegi maa ngi nuyu Gambien yi ñi ma bëgg te xaw ma leen di nuyu sénégalais yépp di wane ne ah yéen a ngi tudd Samira kuy Samira yéen a ngi bind Samira de Gambien people kontaan naa ci yéen waay yéen tamit hmm? sénégalais yi naa ci yéen waay nit mbokkam waay hmm? su ko defee ngeen xam rek ne Cheikh Ahmed daal xam na lu bari ci réew mi téye na boppam mu ci njaayam mi toppatoowul kenn laalul kenn tuddul kenn ku ko tooñ nag ba mu dugg sa garde loo dégg yaa ko def bàkkoowuma maa ngi Amérique bay tooñ ay gor ku ma laalul duma la laal Ahmed Ndoye dégg naa la li ma ñaan may naa la ko Ahmed Ndoye Seneweb boroom 72 heures yu saf-sàpp li nga may naa la ko Momo bu Doro Gueye may naa ko Madiama Thiam dox nga ci tànk jàmm What do you want me to say about him? Okay, all right. Let me, do you think I right now or later? <coughs> may leen ma damay jot ndigal ci kilifa gu mag gi suma kilifa man nag yee yéen xamu leen fu ngeen may jàpp man kenn rek laa ragal ci kook ngeen war a dem eh, tons suba dinaa ñëw sa fa ah. suba dinaa ñëw sa live su ko defee ñu ñu leeralante loolu mag la gis ngay saaga gambien yi waaye comme dangaa saaga ba saaga niw boo saagaa gambien yi xam ne saaga bi du dara mais suba dinaa ñëw sa live wala ginnaaw suba ñu programme ko incha allah kon daal résumé kaay yi lii rek la su ko defee aadama moom xam naa ne dina gën a régler fan yi toog ruqam nekk ci borom kuti kuti na mook ñoom soo ko créer bës fii def seen coalition nit ñi dem seetaan leen ba pare jéppi leen gën leen a sib ba pare na toog di leen seetaan man la réew mi doon xaar ndax nit ñi dañoo bëgg kaa mais kaa bu am argument kaa bu tegu ci raay ngay kaa nit ñi di xam ne li ngay kaa dëgg la looloo neex mhm. kon tons <clears throat> saaga yi nga saaga gambien yi warul jéggalu leen te nga génn ci coow li defuñ la waxuñ la defuñ la waxuñ la génnal ci gambien yi lu leer laa leen wax ma ne yéen ñi may jox kaawu jabaru kilifa gi nga xam ne day wër di korte nit ñi ci dëkk bi ak a rey kaawu ko de duma ko kaa de kaa yaa ngi bëri de ak ay preuve you wanna talk to me right now in my life or later kañ nan nga bëgg da bëgg ma jël suma life wala later yow mi bind your number ends with 1870 you want me to pick you now or later okay later that's fine xoolal ñi di ma bindal Salla Sow lu ngeen xam ci Salla Sow ak kan mooy Salla Sow bu ko bind suma live ma ko xaw ma ko xamuma waxuma ci moom dara tudduma ko gisuma ko man ku ma tooñut maa ngi dem incha allah ngeen jëf love you all <coughs> waa ma ne Didia's Kitchen Didia's Kitchen mënuma koo ñàkk a wax Didia's Kitchen Seattle fii la nekk falaay lekkee falaay naanee restaurant bi gën a set te gën a baax bien vrai que restaurant yëpp a baax ñëpp a ngi togg gis ngeen Dija Kitchen mooy togg lii maanaam moom eh, yàllaa ko nattu moom Dija's Kitchen mu ngi fii Seattle Amérique képp ku nekk Seattle bindal Dija's Kitchen boo demee di nga lekk dinga naan dina set dina neex dina baax restaurant yi nekk Seattle yépp a baax ñoom ñëpp a baax waaye man Cheikh Ahmed Cissé Didia's Kitchen moo ma doy moom laa óolu ci set sell ak neex xanaa lii nag méttiwul te tooñu ma kenn de let me repeat my statement jigéen ñi am restaurant Seattle ak góor ñi ñëpp a mën a liggéey ñëpp ay jàmbarleen leen yàlla na leen yàlla defal jàmm ñoom ñëpp ma ne man Cheikh Ahmed Didia's Kitchen moo ma doy ci set sell neex ak bari moom boo amul dara da ngay dem mu lebal la boo mënta leb mu may la kon Didia's Kitchen moo ko yor type leen ko su subaa fa laay nekk fa laay laay fe na ngeen ma fa fekk Didia's Kitchen ku man na mu bëgg maa gis te mënoo maa gis ñëwal Didia's Kitchen siyaatul nga fekk ma fa ñu dëbb dëkk bi ba mu mokk jërë ngeen jëf yéen yàlla na seen jàmm yàgg coowal suuf yi hectares yi dossier bi yegg na ci man dinaa ko traité coowal suuf yi ci senegal ñan ñoo lekk suuf si ak hectares yi dina leer incha allah jërë ngeen jëf bye bye <clears throat>